seetaan euh, ñëw nañ ci seen beneen numéro de votre émission confrontation comme ni ma koy amalee samedi bu jot danaa leen confrontation dañ leen di indil ay ndaanaan ndaanaan yoo xamante ne dama leen di ràññee ci seen originalité ak seen créativité c'est la seule émission qui pense à vous et vous incite à regarder la télé non vingt ans yi dafa tàmbale et que vingt ans du vingt jours du vingt mois tout du vingt heures donc vingt ans euh, ci retard bi nga xamante ne amaloon nañ waaye nag euh, Mouhamadou Moustapha mhm. dama lay nuyu di la ziar temp temp xam nga sama plateau bu yaañ mi boo ko gisee hmm, gis euh, euh, xam nga moom mi bu nekkee sama kii nekk sama dajoo kii nekk sama càmmoñ damay daal di am fit mais Mouhamadou Moustapha sama rakk ji maa ngi lay nuyu di la ziar maa ngi lay fay bu baax a baax vingt ans sans fête vingt ans sans fête comme tu l'as si bien dit <laughs> c'est pour cela ñun itam dañuy leen di accueillir merveilleusement bien yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy seetaan confrontation de l'émission que vous avez aimé di leen jox lépp loo soxla juste pour vous faire plaisir Bijou Ngoné. juste pour vous faire plaisir comme ni ko Mouhamadou Moustapha waxee euh, confrontation la te émission bi nga xamante ne nee naa leen moom ngeen taamu euh, euh, bu fekkee ni que pare ngeen rek ñu daal di nuyu ñi nga xamante ne ñoom ñoo tax émission bi wax dëgg yàlla di baax laay ayta ñu dem ci ci kan koo jiitu rek koo ma may ma jël. wéy skin biologie AB pressing visible huile soda ban la ci boo foo foo foo baatare ma ko. dem ci namp yi. Ah. Mouhamadou Moustapha damay laaj ci nga dem xaaral ba noppi sax surtout kii bi lim kii bi limon bi non non non Moustapha dafa xew na yow ay waxi nàmp waroo koo wax. non man biisu. nuuru laa ah. laa waaye léegi baa ma rafetal ko nuuru laa. moo gën parce que noonu la tudd. non kon jeex na jeex na ayca baa ngi noonu <laughs> euh, à garder de préférence au frais et à l'abri de la lumière nuuru laa la ah Rika bu ngeen dem dangeen ko fay daal di fekk ci ay prix yu mucc ayib toujours euh, au rendez-vous mi ngi fii ci biir émission confrontation nuuru laa jus ci ay prix yu mucc ayib wax naa leen ko am na parfum yu bëree bëri bëri bëri euh, dem leen ngeen dindi ko ci Rika bu ngeen mënti jot ah ngeen amee ko fa ayca nuuru laa la. bokk na ci huile soda gamme bi nga xamante ne nee naa leen dafa am huile de soja am huile palm ah huile de palme am huile soja am na cinq litres am na 1 euh, litre bi am na bu ndaw bi 350 la 1500 ak 6000 francs am na bu 19000 bi yéen yi nga xamante ne yéen nekk ci xew yi yéen ay jëm dëgmal màggal yéen ay dëgmal li nga xamante ne moom mooy gàmmu ah huile soda mi ngi noonu gàmm bi nga xamante ne naa leen ay doomu réew mi ñoo ko moom ñu koy defaree fii wax dëgg yàlla ah euh, euh, dañuy kontaan bu baax a baax a baax ci di ànd ak ñoom ah ci ci ci 20 ans yi nga xamante ne 2STV yi da koy féete ah euh, fii ci biir Sénégal defe naa ni que wax dëgg yàlla euh, Mouhamadou Moustapha 20 ans ça se fête wax naa ça se fête ça se fête merveilleusement bien moo tax ñun euh, plateau bi dañ koy démarrer tey jëmee ko la ba le 21. maa la ko skin biologie lay doon. dëkk bi ñoo ko moom. su pare ñu dem ma nga noonu. pharmacie bu ngeen dem tamit fii ci Sénégal dangeen ngeen ko fii daal di fekk euh, léegi maintenant c'est présent fii ci pharmacie Guigon ak euh, République ak pharmacie yi bépp boo xamante ne nekk na fii ci Sénégal moom it doomu réew mi moo jógee am bacheloram fële ci États-Unis ñëw créer li nga xamante ne moom mooy markam euh, yéen ñi seen yaram yàqu ci ay diwu xeesal yu ni mel soxlaatul ngeen di jënd beneen gaam wala ngeen di jënd beneen diw boo xamante ne day réparer seen peau dem leen ngeen ci pharmacie yi ngeen jënd li nga xamante ne moom mooy seen seen skin biologie ñu leen di jaajëfal bu baax a baax Wave ah Wave digital finance ma nga noonu sa xaalis nee naa la yaay borom payer avec Wave c'est payer sans stress euh, euh, plateforme bi nee Mouhamadou Moustapha fàtte naa loolu na mm-hmm. dama ko naroon fàtte mm-hmm. ndax nee nañ dañ ko préciser bu baax a baax a baax agent Wave du la mës a laaj sa code boobaak léegi nag ñu ngi leen koy leeralal mm-hmm. baax na ci ngeen jàpp li nga xamante ne moom la ñuy wax bàyyi leen di woote naan sama xaalis bi dañ koo jël ak dañ koo yóbbu dañu am fu ñu ko jaarale agent Wave du la mës di la ko laaj. wax nañ ko léegi ci Tigo numéro yeneen 200 600 moom mooy numéro bi nga xamante ne moom mooy numéro Wave. Mm-hmm. bàyyi leen seen code yi ngeen di joxe te éviter leen di joxe ay code 1 2 3 ay 0 0 ak code yu yomb yoo xamante ne ak seen date de naissance éviter leen loolu def leen ay code yu méttee métti métti nee naa leen xaalis dafa sax ci xol te dañ koy denc. avec Wave euh, euh, payer sans stress euh, léegi léegi léegi dañuy ànd ak ñoom ci été bi ak 20 ans yi nga xamante ne moom mooy 2STV ko amal champ de parfum de classe yi nga xamante ne bu ngeen demee casino euh, en face euh, casino Almadi da ngeen ko fay fekk soxlaatul ngeen di dem ci euh, extérieur di jënd seen ay parfum de classe di di di di oda ñu koy nangu ci ci ci ci aéroport beeg yooyu ñëw leen ba fi nga xamante ne moom mooy Almadi champ de luxe ngeen oda seen ay parfum ah bu ngeen fa demee da ngeen fa fekk conseillère de vente yooyu ñoom Sarata Kujje ñoom ñëpp mu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax AB pressing nekk fële ca cité mixta ah cité magistrat am na AB pressing kits nekk ca Ouest Foire waaye am na it AB pressing bi nga xamante ne seen da ngeen toog seen biir kër ngeen jël numéro téléphone yi rek ngeen daal di di woote ñu jël si leen seen faute yóbbu faute bi faute pot mi indiwaat pot bi. ah bon. maanaam dañuy gàddu pot bi pot bi Abdou Aziz bëgg ci lii ma sedd leen ci mu dem ci seen plateau dama sonn dama lay wax. mais de eh, bisu yow. FBD non non non non non parce que Mouhamadou Moustapha. Ah. noonu nañ tas. non noonu non non jëlal nuuru laa bi mu wàcc FBD yaa ko yóbbu ci plateau. ku ne xoolal sponsor bu la neex mu wàcc sa plateau. ayca <laughs> FBD prestations service services divers ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax ñoom tamit ah euh, ñoom it euh, yemuñu rek ci reer yi nga xamante ne ñu ñu koy defal fii ci biir 2STV waaye dañuy jaayaale ay doxe alimentaire bokk na ci ay vendeurs yu ñuy def aussi. am nañ ay offres yoo xamante ne c'est des chèques cadeaux ak ay kits alimentaires yoo xamante ne FBD bokk na ci euh, euh, euh, entreprise boo xamante ne seen satisfaction rek mooy li nga xamante ne ñoom moom la ñuy def au quotidien ñu leen di jaajëfal bu baax a baax ETS Fallou Col établissement Fallou Col fële ca marché HLM ñoom it ci tissu yu yànj yi nga xamante ne yëpp moom la ñu sol bii ma solit ca la bokk ah brodé pirxe yi wax dëgg yàlla bokkul ak yi nga xamante ne moom mooy pirxe yi nga xamante ne moom moo moom moo xew yii pirxe bu baax bi la coton bi doo sonn doo am benn problème ay ca ETS Fallou Col ñoom ñoo ñu koy jox ñoom it dañuy ànd ak ñoom ci vingt ans yi ah euh, di leen jaajëfal bu baax a baax a baax di si si kanam euh, spot bi dina jàllaat ñu daal di leen di wanaat numéro téléphone yi jàll leen yéen des damay def lu ma mën rek ay satu doo ma rey de yaa ngi dégg ay ca beneen bu ci toppaat euh, Aziz méttiwul la télé c'est du cinéma ni ma ko mën a waxee rek laa koy defee kenn du ma rey waaw beneen bu ci toppaat ah Pullman dañ koy am euh, incha allah calebasse de l' excellence euh, euh, Moustapha defe naa ni calebasse de l' boobaat boobaak léegi muy xew 2STV lañ ciy àndal. Mm-hmm. avec ki nga xamante ne moom mooy sama waa ji ah. Pape Amadou Mbodj Pape Amadou doomu Pikine bi nga xamante ne kenn du moom. waaw surtout Kabirou Mbodj la moom neenaa naa la bu defee calebasse war na te boobaak léegi calebasse gis nañ li nga xamante ne moom mooy monte bi muy am ah muy calebasse de l'excellence avec le groupe calebasse consulting en direct sur la 2STV le samedi 15 incha allah fii euh, euh, euh, ca Pullman lay ame avec Titi en live ñu leen di jaajëfal waaye le 14 ñun it diñ koy dinañ def ak nga xamante ne moom mooy Pape Diouf ak génération consciente ah, euh, euh, fii it ci 20 ans parce que nee naa leen live yi du arrêté mhm. waaye dañ koy tàmbale tey ak euh, ki nga xamante ne nee naan courage jëmale sa kanam mu dëll baaba meng lay doon ak ah, l'étoile montante. temps yi temps yi da ngaa jéng da ngaa jéng temps yi gis naa da ngaa jéng. waaw waaw jéng dara nekku ci. waaw da ngaa jéng waaw foo nekk jëriñoo fa dara boo fa jógee tus nga fa dul wàññi. dem nga Pikine daal fépp foo mënti nekk marque dem ah. ñu bandano di ñëwaat léegi léegi sur le plateau ay ca 20 ans ça se képp yéen xaar leen ñu rek ci suñu programme yëpp incha c'est du 6 au 22 spécial centenaire dafay ñëwaat sabar bu mag a mag a mag tànn biir ak Samba Diarra Mbaye spécial togg bi nag waxaatu la mu parce que ay toggkat yu mucc ay maam Ndiaye Savon maam i Cobra di Kelawbe Pendo Gise non ndiku ñëpp a ngi ci biir togg bi aji maas bu ma limee damay juum ndax lu dóob lañ leen nar a indil am na spécial religion am na spécial lutte ah am na spécial cant gi di ngeen am ay spécial confrontation di ngeen am spécial lu dul jeex parce que c'est à partir 6 au 22 Sandbert ba Sandbert ba centenaire non bu leen ko fàttali ak Samba Diarra Mbaye leen doon toggkat yi nag moom ci yéen a ngi romb panoy wala yaa ngi xool wala merci beaucoup euh, euh, Karadio ci spot boobu gis ngeen euh, ni ko Bijou Ngoné waxee noonu lay amee c'est du 6 au 22 incha allah affiche yi bari na Karadio bu fekkee affiche yi disponible na rek ñu jàllale par benn benn wax naa ko léegi nee naa leen dinañ dëgmal ci ci ci mais c'est dommage c'est dommage que Dof du Wér dañuy affiche yi <laughs> bari na boo bañee ma manqué la wàcc rek normalal waaw da sëy sëy bees te bëggoo ma manqué la suuraale à tout moment dof nga dof la mën nañoo daje. xanaa buy seetu nga baal ko. non non non moo tax. waaw na coupé téléphone bi muy wax. ah Mbaye Ba Faye na calme rek <laughs> calmal rek. Euh, yow maa yow dem calmal rek. Karajo bopp yembee rek euh, ñu dem ci affiche yi nga xamante ne mooy c'est les vingt ans de la 2 le 14 incha allah dañ koy am ak Pape Pape euh, ak génération consciente fii tamit ci esplanade bi. Mm-hmm. dinañ am aussi euh, togg concours togg bi nga xamante ne ñoom mam Ndiaye Savon mhm. ñoom Mami Cobra mhm. Tike Lawbe Pendo Gise ah, ah euh, Ndikku Ndikku mooy mbaxalu mbaar mbaxalu mbaar yi waaw waaw Ndikku Aji ah. Maas ah Tike Lawbe ñooñu dañuy def concours togg ci vingt ans mais jury bi ñan lay doon ah, non jury bi euh, ñoom HBK la Abdou Aziz bokkoo ci jury bi jury yi ñoom sën sëy la waaw parce que bu ci nit dëkkee Pikine da attan waaw paay xam ne daanaka def nañ ci vingt ans <laughs> waaw jury bi <laughs> daanaka ñoom la yaa ngi dégg. ah euh, euh, ñoom ñoom ñoom ñoom euh, ñoom Adama Kandé. ndaw jury bu neex. sport waaw waaw <laughs> Adama Kandé waaw sport ci biir. non at bi de télé bi am la at boobu la am am na ñoo xam ne sax ñoom ak câble yi ñoo maase. non déedéet ñoom ay Aïssatou Françoise. ah non ay mag lañ. pour laal eh, ñoom kon ñoom ñooy feetu. non daanaka voilà fête bi <laughs> pour ñoom la nag. Ah. ku ci mel ni Père Faye. <coughs> Ah, ñoom ñëpp wax dëgg yàlla xam naa ni satisfaction la ñuy am rek. dëgmal li nga xamante ne moom mooy anniversaire bi ñoom hmm. karaajo ñi yëpp ci paa yi lañ bokk di waaw ci paa yi lañ bokk di euh, bokk na ci aussi euh, euh, sabat bi nga xamante ne dinañ ko amal centenaire ah. Euh, mais moom comme di Samba Diarra Mbaye lay doon. boobu moom gars yi yaakaar nañu deux deux sports dinañ ko am spécial cant ki dinañ ko am ak Omaro. Mhm. Ah, euh, euh, le programme porte dinañ ko am. dinañ am aussi Sidi Diop ak ki nga xamante ne moom mooy Jéba. Mhm. Ah, ñu ànd ko ak Kheucha. Mhm. Ah, ak ñoom Raki. dinañ am aussi spécial confrontation yi mooy bii am tey rek ak Baba gis nga ko. ak bi nga xamante ne aussi moom mooy Pape Diouf Sambar bi yàpp Sambar baa ngi nii. Samba Diarra Mbaye la tànn beer bu mag fële ca centenaire. ah euh, xam xam nga Samba Diarra nag dafa xew. dafa xew waaw waaw xale bu xew la. Euh, te wax dëgg yàlla dañuy ànd ak ñi xew rek Aziz moo gën a rafet. waaw waaw dañuy bañ rek ah euh, ñu ne der kenn gën contre temps rax. waaw waaw loolu la ñuy éviter donc nañu dem rek ci onde bi <laughs> baaba géwél nga dégg nga baax li may wax damay wax xam nga xam nga géwél mën naa ko saagal ndey te doo ko yëg waaw te dama dama waaw liggéey ko noonu rek. ko noonu noonu la rek. Hmm? Jibi Diop borom Dakar dem dikk ñu ngi lay jaajëfal di la nuyu bu baax a baax a baax euh, euh, comme que rajo bu fekkee ni loolu pare na rek ci affiche anniversaire yi euh, ñu jublu ci li nga xamante ne moom mooy rubrique rajo avec Mouhamadou Moustapha ñu jàll ci leneen léegi léegi rubrique rajo. <laughs> Mamadou Moustapha demal. acca ñu ngi leen nuyuwaat bu baax a baax comme ni ñu koy tàmbalee chaque fois rubrique rajo daañu recenser les actualités phares de la semaine jox leen ko pour ngeen mën a participer yéen itam fa ngeen toog bi ci njëkk euh, gannaaw son excellence monsieur Macky Sall génn na wax ne du bokk ci élection yi nga xam ne moom la ñu dëmmal euh, mais li ñu gën a ci loolu gis nañ euh, des femmes. APR yoo xam ne yuuxu nañ ci jooy nañ ci xataraayu nañ ci ñii xalamu nañ leen ñii ñii ñii toroon boro de pire sax sànni nañ ko ñii sànni seen i musóor ñii di jooy mais réaction première dame itam ñu bari di ko di ko laaj euh, pourquoi la réaction du euh, euh, première dame bi ci moment bi nga xam ni moom la son excellence daal di annoncé ne du bokk lu tax nit ñi di jooy itam bi loolu moo nekk sama premier élément ci rubrique Karajo nañ <laughs> Moustapha waaw euh, lenn xam naa ko parce que euh, euh, son excellence euh, il est sorti par la grande porte effectivement il est rentré dans l'histoire xam nga pouvoir mhm. Mahmoud Moustapha pouvoir égale histoire mhm. euh, soo nekkee soo nekkee njiit mhm. boo mënta fexee dugg ci pouvoir ci ci ci ci histoire rek je pense que tapé nga à côté donc vraiment il est rentré dans l'histoire xaw ma ku ko conseil mais il a été bien conseillé. et c'était une surprise hein. et je sais que euh, décision bi ça a surpris tout le monde. effectivement ça a surpris tout le monde. Euh, ndax ñu ci bari euh, ci côté administration beeg ci côté defe naa ni dawal na diplomatie boo xamante ne boo gisee réaction première dame mooy wane ni que. personne était au courant ah, ci li nga xamante ne moom mooy décision bi mu jël. et que confiance bi ak fidélité bi ko sénégalais yi dévoué woon. ba fal ko defe naa ni que euh, delloo na leen monnaie pièce bi et que loolu lañ doon xaar ci moom pour stabilité dëkk bi. Mm-hmm. donc euh, xëccoo troisième mandat moom. Mm-hmm. am naa du am. de toute façon il est sorti par la grande porte ndax gis nañ fi seen ay njiitam ñi ko fi jiitu bokk ñi ko fi jiitu woon euh, bañ ko waree def it dañu ut ku leen remplacer waaye moom lii mu def nii vraiment il est rentré dans l'histoire quoi qu'on puisse dire. mu neex mu naqari ñu suñu genre yi di ko doon euh, euh, xas subaa ngoon guddeeg ba bëccëg noonu laa ko mën a tudde mhm. parce que wax dëgg yàlla wàccuñu ko benn yoon. Mhm. Euh, mais rusuñu tamit parce que lii la ñu soxla woon en fait. effectivement waaw c' mooy point bi nga xamante ne moom mooy li ñu waroon wax. et que loolu la def. waaw match bi tas xam naa ne Karajo. Mhm. yow fexeel bokk rek. <laughs> il nous a montré que ni euh, euh, le Sénégal est. soulagé na nit ñi nit ñi. ñu daa dal daaw sa candidat na fexe bokk rek comme moom neen dafa bëgg bokk na bokk rek. def ci code la def xalifa neen day bokk na bokk rek. l'essentiel daal naa bokk rek. candidat ah, son excellence nous a montré que ni le Sénégal. Karadio <laughs> <laughs> ah? a montré que le Sénégal est plus important que sa personne. donc moom itam ñu koy euh, félicité bu baax a baax a baax ma son excellence mu nekk une surprise beneen bi ci topp mooy euh, cité bi nga xam ne tur bi boo koy wax euh, da ngay. hésité mais on est obligé muy cité bi nga xam ne dañoo déguerpi ña fa nekkoon ñëpp ñëpp jële leen fa mu nekkoon cité boo xam ne ñu bëri dañ doon kaas ne y avait pas sécurité ña fa nekk aussi am na ñu fa dëkk ñu lu baax am na ñoo xam ne bon nañu ñi génn na ñi sama sama sama sama bagage ñi ngi ci biir mu nekk ñu bëri ñoo xam ne rafetu nañ ko am na ñoo xam ne itam ñaawlu nañ ko bii Ngoné Mouhamadou Moustapha defe naa ne dañu toll si defar waaye euh, euh, foofu amul lenn lu ñu fay loree kenn. Mhm. parce que ñoom fi ñu nekkoon. Mhm. Euh, wax dëgg yàlla Mouhamadou Moustapha ça resté à dégg naa tur bi cité Darou Salaam vraiment cité ma liggéey bi di ñëw ma ñëwee foofu ma toll si circulation di liggéey di fanaan loosee patron bi xëy a génne ma ama fu ma dem bu ma génnee noonu ci laa ñëw gis sama benn xarit mu ne ma fii laa dëkk. gaa ñu dem looloo ma indi site bi fii may jëndi samay galaas jëndi samay lépp di daan sama doole fii noonu la fa demee mais du leneen lu ñaawtif loo xam ne dañ ko fii def balaa ñu koy wax joxuñu ñu naan joxuñu ñu lekk jël koñ bi baaraase ko mel ni ñun ay imbécile lañ ma ne ma ne comme ñoom dañoo kompolo jël seen koñ bi baaraase ko ñun jànqaj yi liggéey ci asaleem gi nañu kompolo ak footkat yi jànq bu ñu fayatul mille francs du ñu liggéey bu ci gën a tuut sax bu ñu ko fayul 75000 du liggéey ñun dañoo nekkul ay nit duñu ay caga ay nit lañ dañuy liggéey xëy na lii erreur la nañ ko muñ to wek ko ci kanaw ci loxo yi yàlla. boobu moo ma fi bàyyi. ma man liggéey si fii di fóotu. di daan sama dool di yóbbante dëkk ba. di yóbbante dëkk ba yaa maa ngi doon dégg aussi nga ne li nga sol sax dañ la ko may génnaale woo dara. génnewu ma dara kër bu suñu waa demee tabaski. ma dem utu surne bu ma fayee ko noonu jëndal sama doom bu ndaw bi yére dinañ mm. ma ne cité bi ñu ngi koy toj mm. nu ma tijjee sama néeg bi dugaatuma ca génnewu ma dara génnewu ma sama yere yu baax génnewu ma samay ndab génnewu ma samay bagage te jéemoon ngeen gëstu xoolaat ba xam foofu noonu am man boo leen demee di ngeen mën a jël dara wala demaatoo leen fa ba tey demaatuñ fa waaye bu ñu bëggee demaat dañ ñu ne kenn du dugg d'accord génnewuñu dara. yow bokkoon nga ci ñi ñu yóbbu arena. ma déedéet man fekkuñu ma fa. fekkuñu waaw suñu waa kër yëpp a demoon tabaski ma xam ne man man dong des ma dem uti journée bu ma fayee ko jënd ay yére sama doom bi ma mujj feral yóbbu orière ci lañ ma ne si bi ñu ngi ko. ci la ñëw sa ginnaaw. waaw ci la ñu ñëw sama gannaaw billaay wallaay taalaay bu fekkee nanguwoo dem liggéey asalem ah jéggil raay bi dem feneen parce que waa asalem duñu la fay 100000 waaw yoruñu ko <laughs> yow moom lu pour en guise de rappel gars yi ñu ngi ne cité bi vrai turam euh, cité Daaru Salaam la euh, je pense que cité boobu tur booboo gën a rafet que tur bi ñu koy tuddee xaw ma nag fan la imbécile bi jógee mais mat naa leeral gars yi Moussa baa xam nga ne ñu fa nekk euh, majeure partie bi kenn mu ci carte d'identité kay xanaa kenn déggu ci olof bu set mais kon xanaa ñi fa nekk ñu ba duñ ay sénégalais déedéet ñu ci ëpp mais ñun biñ ñu yóbbee Dakar Arena ñi ràbb sër yi ñi nekk Dakar Arena bu fekkee ñoom ñoo nekkoon ci biir service ñu doy na waar waaw waaw ba bari na sax nag am na ñu ci bari ñoo xamante ne ñu ngi ñu ñu ngi ñu ngi nekk ci buntu kër sëriñ bi noonu mhm. jëm boo jógee autoroute di dugg HLM mhm. fees fa dell parce que amuñu fu ñu jëm waaye defe naa ni euh, euh, ñi nga xamante ne euh, ñoom ñooy njiiti mhm. xam nañ ban solution la ñuy def parce que bus yi ñu ngi leen doon jël di leen yóbbu arena mais ñu ci bari nanguwuñu woon dem ñu ci bari dañoo demoon liggéeyi wàcc di ñëw mais insécurité bi am foofu. lu ci lu luñ ci defee HLM. foofu la ñuy tëbee mur bi jéggi dem. donc c'est pas pour rien ñu tuddee woon ko noonu parce que bi ñu juddee ba ñun man man personnellement bi ma juddoo ba tey cité imbécile la tudd. donc bu bu ñuy xëy di bu bu booy wuti ji jànk wala ngay wuti fóotkat wala ngay wuti lépp lu mu munti doon daal fa nga daan jéggi dem uti ji ko ñëw HLM. ok mais euh, euh, nañu dawal yërmande rek parce que ñun. defe naa ni loolu rek lañu ñu mën a ñaan ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñu xool foo xamante ne dañ leen fay def parce que foofu ñu nekk amul sécurité sax ci ñoom mhm. parce que fa la terre bi di jaar mhm. insécurité moo tax ñu jëlee leen fa mhm. waaw insécurité moo tax ñu jëlee leen leeral la ah. waaw parce que terre bi fa lay jaar te dafa am travaux yu bari yoo xamante ne ñoom ñi fa dëkk léegi daf leen di nuire mais nag xam nga du ñu expliquer nit ñi exactement lan mooy véritable source problème bi effectivement jël nañ leen gàddu nañ leen yóbbu leen ci rek ngeen di dégg nit yi di wax mais nañ leen wax exactement lan mooy sens bi tax ñu yëkkati leen parce que depuis des années like avant ñuy teg li nga xamante ne moom mooy projet wu TER bi ba tey averti nañ leen ne dañ leen fa war a jële donc loolu du loo xamante ne dañuy dafa bees waaw dañu dem ba sës toll ci cëppaandaw gi moo tax ñu jëlee leen fa. beneen bi ci topp muy euh, muy muy. information bi nga xam ne tam ñëpp gis nañ ko par rapport ak Omaro mu Cheikh Béthio ma nga xam ne gis nañ ko mu nekk <coughs> chargé de communication bu Wally euh, récemment ñu gis ko mu def ay sorties comme quoi que Wally moo tax moo wóolu yàlla mu nekk ñu bëri di ci posé ay questions pourquoi wax jo moom itam il a apporté des éclaircissements là-dessus wax ni moom li muy wax xam na fu ko teg ñenn ñi xam tamit bokkoon nañu fi ñu nekk ak moom ne pourquoi Omaro di wax loolu mu nekk lu suscité beaucoup de débat fii nga xam ne moo di Sénégal bii jungoone da nga maa laaj wala lan nga bëgg xam non information bu ma joxe la rek information la boo su ma neexee mën naa cee bañ a tontu su ma neexee man aw ma ci souci parce que man xam naa ne sama fois pour rien au monde. Mhm. ak sama gëm-gëm. Mhm. Euh, ma koy tëkkale ak benn nit. Mhm. pour rien au monde sama fois laa ak sama gëm-gëm. xëy na nag moom moo xam état d'esprit bi mu doon waxee. waaye man Serigne Saliou ak Cheikh Béthio nañ ma ba mënuma leen a yemaleeg mbindeef buy dudd laa wax ci kaw suuf. donc état d'esprit bi Omaro waxee moom moo ko xam. Euh, euh, dañ koy dañuy respecter décision am. peut nag nit mën ngaa tax ak moom defaru. ça dépend parce que Serigne mm. Sall daan na ko wax. Mm. waaye man moom man maay defaraate man personne mënu maa defar. Mm. mais nag ça dépend ci li nga xamante ne moom mooy état d'esprit bi mu ko waxee. waaye xam naa ne que wax dëgg yàlla euh, Sëñ Béthio du kilifa gu ñuy dem di ñant waaw. <coughs> beneen bi topp sport la mu euh, muy Papa Boy Djiné euh, di lutteur tey ñu jàpp ni information bi génn que seetaanuñu la mais daan nañ ko. Mm-hmm. mu nekk lu lu lu lu gars yi wax lu beesaat la parce que dañ ko gisoon open press mu waat ne dama koy daan. ba nga gis sax am na ko nekk ñu ko déet bul waat mu nekk lu mu wax ñu bëri doon xaar tey nag victoire am parce que jàpp nañ am na fu mu ko tegoon tey ñu daanaat ko ñu koy wax euh, di courage di ñaan yàlla mu amaat victoire ci beneen combat. waaw du ko ko yéene que bu fàttee am papa mooy jënd que jabar euh, suñu xarit waaw waaw waaw <coughs> non non si si euh, daan bi moom yomb na lool waaye du question de sax jabar mooy suñu xarit waaye nag. Euh, euh, nit la koo xamante ni dafay évoluer ci loo xam ne ça n'a rien à voir avec sa femme parce que il faut tamit nit ñi def la part des choses waaw parce que waaw waaw waaw ñu xam ne que kii lii liggéeyam la mm-hmm. et que yoonu jabaram nekku ci quand même ah mais euh, dañ koy ñaanal prochaine fois yàlla may ko ndam mm-hmm. ah xëcc bu daggul dikk incha allah du dëgg nañ jàll ci beneen jeex na dafa mel ne information yooyu la woon bijou kontaan naa bu baax a baax may nuyu bu baax a baax samay ñaari neveu Bachir ak Zeyna ah depuis depuis ñooñu doomu mamay la mamay bi bi soor bu sa soor bu sa waay depuis Sicap Kaaral. maa ngi leen waaw. <laughs> ah nga ne la ci kay mamaa ji <laughs> jërëjëf Mouhamadou Moustapha loolu moo nekkoon information yi nga xamante ne c'était les buzz de la semaine mhm. buzz yi nag waaye kaa ma wax la am nga boo tëb de mbay fay ji ah non mais boobu jarul buzz parce que bu dañ koy waxtaanee ah, bokkoon na ci mais kon li ñu <laughs> waxtaanee la woon nag de ah, Ablaye Mbaye ba fay moom lu ñu war a waxtaanee la tey ñu ngi koy ñu euh, naan tunga ne du teew ñu ne ay jërëjëf Karajo ci ci rubrique bi nga xamante ne moom nga ñu amaloon laataa loolu euh, wax naa leen ko léegi nee naa leen confrontation dañuy indi ay artistes yoo xamante ne dañ di ràññee ci seen originalité ak seen créativité ba tax na tey ñu invité waxoon nañ leen ko baaba Meng Baba et montante muy ndaw boo xamante ne euh, nee naa leen euh, boobaak léegi échelonné na ci lu bari ci musique sénégalaise mën na mënul boobaak léegi lu tax baaba tarde à percer yooyu yëpp dinañ ko waxtaanee lan moo tax baaba toog ci banlieue bi rek bañ a génn lan moo tax lan moo tax lan moo tax yu baree bare tey dinañ ci waxtaan ak moom euh, boo boole ci nag mu wane waale ay preuve parce que nee naa leen c'est l'anniversaire euh, c'est les vingt ans de la 2STV dañ koy accompagner ak way léegi ni daaw ci bis bi euh, Alioune Mbaye Nder la ñu ubbee woon mm-hmm. ah ren ñu ubbee ki nga xamante ne moom mooy baaba Meng et mu nekk réel plaisir ah di jaajëfalaale ki nga xamante ne moom mooy Abdou Aziz mu ne ci kër gi ah euh, xam naa ni fii ak ci kanam it dinaa ko jox it moom mu am ñaari kàddu rek yu ci sànni mënut a ñàkk euh, baaba ñu ngi lay nuyu di la ziar maa ngi lay fay bisou di nuyu àdduna di wax ni ñëpp déwénati bàlleen ñàq bal nañ leen yàlla nañ yàlla boole baal ñu fekk koy déwén yu bare bari di nuyu suma yaay di nuyu suma papa di nuyu famille bi yëpp di nuyu tamit musiciens yi mandal tey ñu war a jàkkaarloo bisu ak àdduna maa ngi nuyu ñëpp ayca euh, baaba fay nañ la Euh, beneen invité bi ci topp wax naa leen ko euh, dañuy topp ci li nga xamante ne aussi moom mooy les actualités ah euh, yi nga xamante ne ñoom ñoo ñuy dab à chaque fois bokk na ci actualité bi moom it ñëw na euh, émission bi du bees ci moom ñëw na fi benn yoon ñëw na fi ñaari yoon bokk na ci ñi nga xamante ne dañuy neexal émission bi bokk na ci ñi marqué seen empreinte ci li nga xamante ne moom mooy émission confrontation waaye tey dañ ko invité euh, teg ko waxtaan ak moom ci beneen anam boo xamante ne nee naa leen dafa def buzz semaine bi Macky Sall wax dëgg yàlla du posté du déposé troisième mandat dafa am koo xamante ne buzzum dafa ñëw fay muy buzzu mbay fay ji ak buzzu takk jabat Abdoulaye Mbaye ba fay maa ngi lay nuyu di la ziar di la bàyyi merci chéri. waaw mhm. ah, asalaamaaleykum nag maa ngi nuyu ñëpp di nuyu di nuyu <laughs> yaa ngi wéree daal dama fay fekk ay doom pikin. Ah. ñoo xam ne kii man ak moom dafa dafa yàgg. man kii rek laa lay baaba say origine laa fi teg. waaw tey damaa kontaan parce que ñoo xam ne dañ xam. kii moo nu yar Abdou Aziz mi moo yar mm. ku baax ku bëgg Pikine ku doyloo Pikine ku Pikine yaakaar baaba nekk ku baax billaay wallaay bisu amul kenn ku daa xawe ci àddina waaw wax nga ko du dama lay wax man géwal laa du ma joolaa du ma soninke amul kenn ku daa xawe baaba amul ci àddina ñun nag ñu dëkk Pikine ñun ñoo ko war a dooleel ku am na ko gisoo wa Talib Mag waa kii waa Medina. dañuy doole seen waykat ñu ñuy dëkk Pikine dañ koy dooleel génn ko Pikine waxuñu mu gid dàq Pikine de mu ñëw dugg ci almadi bi di way te bu wayee almadi kenn du wayate ku ku mën a way la ku mën a sol la ku xam boppam la ku xam mooy kan la ñàkkul fayda moo tax nekkul ci way ci musique yi di taxawaalu ci di bëf ak du ñàkkul fayda mais yàlla na yàlla defal jàmm di nuyu sama famille di nuyu sama soxna di nuyu samay goro di nuyu sama yaay yàlla na yàlla def jàmm yàlla na ah, jàmm mu gën waxtaan ak noom jàmm ayca euh, moom laa leen wax léegi Ablaye euh, mbay euh, di Pawlish moom la ñu invité tey ci plateau bi dinañ waxtaan ak moom plus largement ci li nga xamante ne moom mooy coow li fi am coowal takk jabar bi coowal mm. papam ah, lii la wala du lii mais dañuy seet nu mu gën a yembee rek ñu daal di koy defee noonu. Mm-hmm. Mouhamadou Moustapha mu bàyyi la nga bu ñu tàmbalee ci baaba. waaw ah, détendre atmosphère bi au moins. Mm-hmm. ah parce que moom dafa war a dem mu ci kanam mhm. xaar leen baaba it mu ngeen ko fekk tey bu leen live bi neexee yéen ñëpp dem leen gaynde fekk ji ko euh, euh, léegi léegi lay doon ah ci kanam euh, gaynde fële ca ca mariste ngeen fekk ji ko fa baaba xam naa ne fii ak ci kanam moom it dina wax place yi nga xamante ne yëpp moom lay moom lay moom lay fa lay joué Karajo pour mu gën a yemb rek man damaa bëgg ñu ibbee baaba parce que dina am six sélections yoo xamante ne dinañu ko defal ak publicam bu bi nañu ubbee ak baaba rek détendre atmosphère balaa ñuy dugg ci waxtaan bi ak moom ak nga xamante ne moom mooy Pawlish Mbaye mbay Bakhsa. yow na xool yow na xool wax ma sama tur gloire qui est en lumière. Isro Bay Diop adduna bi ñu nekk ni sosolante moo gën a yomb waxalante lu baax jamono dafa doy waar nous sommes dans un monde où diffamation et calomnie rime sur la région gën a yomb waxalante lu baax jamono dafa doy waar nous sommes dans un monde dafa doy waare nanan su ma demee ba lay way baw nga xam ni ndaan ngeen Baba dama lay bàyyi nga nga nga nga naan ndox tuuti daaneel parce que defe naa ni nga ubbee euh, tooyoon nga xelu euh, xolu sénégalais yëpp ñu ci bari euh, Facebook beeg YouTube beeg Instagram bi ñëpp ngi laajte kii kan la et loolu question la boo xamante ne nañ ci ñëw léegi parce que tamit baaba doo ko ñuy présenté ci milieu showbiz bi pourquoi kii kan la bi yooyu yëpp dinañ ci waxtaan mais le temps ngay dallu rek damay bàyyi ki nga xamante ni moom mooy Mamadou Moustapha ñu tàmbalee ak ki nga xam moom mooy Pawlish Mbaye waaw ñu tàmbali ah. waxtaan. waaw ayca Ablaye. waaw dañ lay bàyyi nga nuyoog euh, Sénégalais yi nga xamante ne ñu ngi seetaan à travers la DGTV. waaw maa ngi maa ngi nuyu Sénégalais yëpp damay seetaan ñi ma bëgg xam naa ne kenn bañoo Sénégalais dañ maa bëgg torop waaw parce que xam naa ne dañ maa bëgg lool di di nuyu sama yaay Ayda Baye di nuyu sama maam Bintu Dieng maa ngi nuyu sama famille yëpp nag maa leen nuyu ñoom ñëpp di nuyu sama famille di nuyu ñi may seetaan di nuyu soxna Diarra Bousso ki ma takk. yal na ko yàlla defal jàmm yal na ko yàlla suturaal di nuyu yaay Fatulaay di nuyu Serigne Bass maa ngi nuyu ñëpp di nuyu ñëpp daal maa ngi nuyu Sénégal yëpp di nuyu Baba sama xarit maa ngi nuyu ñëpp daal. <laughs> Euh, waaw yéen ci commentaire bi dëgg na sa solo ma leen amul problème d'accord dégg naa ni nga wax euh, <laughs> Aïcha euh, Ablaye Mbaye Pawlish Mbaye Ablaye Mbaye Ba Ablaye Faye kat may Pawlish tey bu ma la doon woowee lan nga bëgg ma woowee. Ablaye Mbaye. Ablaye eh? moo tax. pourquoi parce que euh, moom laa xam. moom nga xam. waaw Ablaye Mbaye laa xam te soo génnee ñu ne Ablaye Faye da naan la kan la. waaye yow kan nga ci. man Ablaye Mbaye laa. Hmm. mais bu ñu ne woon Ablaye Faye nag. waaw ah, parce que damay neex ci bërki démb ba sama papa génnee boo nee Ablaye Faye damay neex. Hmm. waaw. loo bëgg wax foofu. loo bëgg wax foofu. merci parce que papa kenn du xucc ak moom. papa kenn du ŋaay ak moom parce que papa la. lu mu la mën a def ci àdduna papa la. lu mu la mën a wax ci àdduna papa la. mais def na ma nag lu ma lu ma metti mais damay neex parce que sama papa la. Hmm. si. lan moo la ci metti waaw parce que bisu waxtaan bu ne waxtaan na te bis bi laa doon xaar pour ñu waxtaan ci sama papa. parce que police bu baax léegi nit ñaay xam nañ la. mais mu bon sujet bu bu sérieux nii peut-être bu soree nii. amagoo ko ci benn plateau je pense. Ah, parce que damay bàyyi nit ñi di génn di wax ma xam li ma xam noppi di xaar bis bii nga invité ma parce que li ma ciy wax yow laa ci mën a waxtaanal. parce que yow xam nga ci man lu bari. est-ce que lay déglu. non xam ci man lu bari bari. Mm-hmm. du bi de. Mm-hmm. parce que man man monde bébé xam ci man lu bari bari. xam mm-hmm. sama yaay xam dafa xam ci man. lu bari bari loo xam ne ni bu ko waxtaan ak doomu aadama moom laa ciy waxtaanal. sama papa génn na génn bu ma neex génn bu ma yàqante woon moom moom mu génn foofu génn bu ma neex laa yàqante mu génn ko. kon génn bi naqarew la. naqarew ma non non. ok que juróom benn weer du caaxaan. gisoo sa papa juróom benn ba ba ma amee juróom benn weer laa gëj a teg bët ba bët ki démb ba dee ginnaaw su ma la tabax ci ba ko yóbbulee xaram. ah nga amee. juróom benn weer. sooy takk jabar nañu seetaanaat image bi mais da ngay nëbb sa papa di indi yeneen i papa pour ñu takkal la jabar fan la Pawlish teg te jotewuñ dara damaa compte ñu ko ñaanali jabar parce que ki soo nekkee kilifa ñuy la kaay wutali jabar da koy laaj anta bàyyi moo yor ji koy boppam beddu boppam ca weer koo lañ gëj a wax waaw ca weer koo laa gëj a dégg Ablaye kon takk gi yëgoo ci dara yëguma ci dara nii laa ko déggee ci ci portable yi laa ko yëgee man laay Faye laa ko tuddee laa dégg nit ñi di wax ay Pawlish Mbaye Pawlish Mbaye man Ablaye Faye laa jotewuñ dara léegi la ma mujj woo di ma baalu wax jotewuñu Ablaye dara de ñaar ma ko beewloo mais maa jur Ablaye deewu ma de képp ku mu taxaw ne dama dee deewu ma maa ngi nii di dund man sant ma ba fay laa sant Ibou fay laa tudd waaw ñooñu naan ko ay tey moo la wax leen turam dëggantaan xamuñu Ablaye moom laa xamul man xamu loon di ba man jegew ba parce man du ma pël man séeréer laa man lu ko indi ba man laa xamul lan la parce que am na ci yéen ci vidéo yu dégg mu ne moom bala sant. non man fay laa sant ñii ñëpp fay lañ sant. te ko jur maa ko jur du sama taaw Ablaye du sama taaw. kañ la commencé lii bi mu nekkee xale. wala bu ñaar dërëm moom rek la beew. Ablaye bi mu commencé génn télé rek la si la beew mais Ablaye saa mu tukki su ma ñëwee rek ci suba sam ngi ci man lu ma am bokk ak moom. maga ma ko daan fayal muy dem entraînement boobu mu ngi football nawetaan mais beew na rek fàtte na ñëpp ñaar dërëm ma ko beewloo. rajo ci élément bi ñu may euh, daf ñuy revenir loo waat rek ci li nga xamante ne moom moo nekkoon actualité semaine bi dégg nga li nga xamante ne moom la wax mm-hmm. nga amoon foo toll nga ne depuis six mois bi nga amee six mois ba six mois tabaski nga koy doon a gisaat ba ne ci ne ay trois jours la ma sama mag bi bokkoon ndey ak baay sii ni ñu bokk ndey ak baay amaana su bëggee dara du ko jaarale ci man parce que mënut a wax ak man te man bëgg naa wax ak moom te mënumaa wax ak moom lu tax mun a tax loolu man bëgg naa wax ak moom te moom bëggul a wax ak man. ndax lan te man bëgg naa wax ak moom parce que sama mais bëgg nga wax ak moom yow moom bëggul wax ak yow. bëggul wax ak man waaye sama papa parce que xaaral bëgg naa wax ak moom. mais bëggul wax ak man su bëggee dara ci man dakoy jaar jaarale sama mag ba bokkoon ndey ak baay sii nii nangu loolu parce que sama waajur la waajur kenn du ko mu am mu am facilité wax ak sii nii te amul facilité wax ak yow. waaw àdduna looloo ma jaaxal waaye sama la. mais bi nga amee six mois ba biñ ne tabaski des na trois boobu yëpp lan moo tax gisoo ko lu xew c'est quoi le problème exactement. moo ma jàppal man jàppalu ma ko dara parce que sama papa lu xew ba jàpp bi dem. parce que àdduna àdduna man sama maam moo ma yar sii ni papa moo ko yar man sama maam moo ma yar ba ma amee six mois dama sama maam yar. ma nekk sama maam Bintu Dieng mu metti torop ñii xam naa ni xam nañ Bintu Dieng ñii ma toogoon ñëpp xam nañ Bintu Dieng mu metti loolu ci man xooluma li ma am xooluma li ma xooluma li ma ñàkk tey bés bu tey bu dee ba ni moo a jur damay nangu ni moo ma jur parce que dama yàqam ci loolu damaa kontaan ci li mu génnee moom ma jur juróom benn weer tey nga bës ñëw nga ne yaa ma jur damay nangu loolu ne moo ma jur te dama ciy kontaan trop ci génn bi mu génn dama ci am mbégte pour ma xam man kii ma jur kan la muy Ibou Sène Ibou Ibou Sène Ibou Faye mais Ibou Sène lañ koy wax mënu mënu maa xëcc moom ci dara parce que sama papa la Moustapha bu fekkee ni que euh, bon c'est très compliqué hein peut-être que euh, vous avez raison je pas à l'aise ci sujet bi mais nag euh, je vais euh, d'être le plus professionnel possible ah il fait partie de moi c'est normal euh, Karajo bu fekk Moustapha bu fekkee ni que benn numéro ci numéro yi pare na rek koo ma ci jox ma dugal ko ci ligne bi ci fi nga xamante ne foofu lañ toll nii ci point bi balaa ñu koy dépasser demal. Lat Lat Yorma. Lat mooy kan. mooy sama jëkkëru yaay. Lat Mbaye Lat Mbaye moom nga doon moom la Lat mooy sa papa ñun ñëpp bi ñu xam. moom ma moo ma tette ci moo ma tette ci lépp ci àddina ci moom laa yaroo ci moom laa xamee lépp ci àddina ci moom laa xamee lépp ci àddina man man moom laa wax santam laa jël sant mbay ah ok. Hmm. bi dama doon football ku ne xam ne affaire football du ci dem. waaw. ma mu jël santam jox ma ko. man nangu loolu parce que sama papa la sama papa parce que man moom laa xam xaw ma keneen caat lat laa xam moom moo ma tettee ci lépp moo ma tettee ci lépp ci àdduna laata ma feral ah kon xam nga ni man ko ci kon xam nga ni kooku laa xam ci yërmandeem ak ci baaxam lu ma lu ma jël ci moom rek lu ma jël ci ci ma ci moom ah, ah, ci sama jikko ci moom laa ko jëlee muy baax yërmande ah, yàlla suturaal ma ma dégg trop moom day tëgg xam nga ni kon du caaxaan yar du caaxaan waaye kii génn sama papa la mënuma ko mënuma koo dóor mënuma koo saag mënuma def leen di ci waaye sama papa la amaana mënoon naa génn feneen pas mu génn dama toroxal te yàlla duma toroxal ci àddina man cherché naa def naa lu nekk ci àddina mais ko yóbbu sama mag bi ma bokkoon ndey ak baay xaru tabaski bi ko woon yëgal xew bi ñoo bokk ndey ak baay bu fekkee ne xew bi dañ ne moo bokk ndey ak baay mhm. appel yaa ngi nii seeni sama papa mhm. Mhm. jëluma ma woo Sini nekk waxal sama papa damay damay takk jabar ah woo nga ko jëlul woo naa appel jëluma ma wax Sini waxal sama papa damay takk jabar Sini sama nawle la sama mag la ñoo bokk ndey ak baay du ma may fenn wala may waxal sama papa lu nu amul ñuy wax damay génn ñu bari di wax te xamuñu li ñuy wax. mais sa mag la moom ci situation yi naka la doxalee ak yow. waaw parce que mënu ma faral sama papa lay faral te man soo faraloon du ma neex parce que sunu waajur la waajur waajur du jaaxaan mais lan moo tax déplacé woo dem waxtaan ak sa papa. parce que cherché wul pour ma gis ko cherché naa pour ma gis parce que damaa yor oto ku nekk ku nekk ak gisante sa waajur loolu gën a neex ci àddina man ma mel ni gis gisante ak sa waajur gën a ci àddina. parce que damaa dégg daal di amaana xalaatul woon ni dinaa dégg daal di ba tey jii am mu génn wax amaana waroon naa génn ci yeneen facette pas facette yi waaye sama papa dama koy nangu. mais Pawlish dafa am tubaab lu ñuy wax refus de paternité maanaam bañ ne maa jur kii est-ce que mën nañu jàpp dafa amoon ci début bi ba tax coow li toll fii. waaw parce que affaire xam nga dafa day xóot. Mhm. du ma ci mën a du ma ci mën a prolonger daal waaye sam sam papa da nga koy suturaal. ak lu mu mënti demee sama waajur la. ok lu mu lu mu mënti wax ci àdduna sama waajur la. munuma am dëgg ci moom ku may faral tamit faral nga faral nga loo xamul parce que sama waajur la ku may jàppale jàppale nga loo xamul parce que sama waajur la mhm. tey bu génn àdduna may taxaw ci paxam kenn du taxaw ci àddina ayca bu son bi mënoon jug euh, léegi-léegi ñu jël ki nga xamante ne moom moo nekk ci ligne bi 88 628 alo alo allo allo allo allo allo salaamaaleykum waaleykum salaam. Euh, waaw dafa mel ni. waaw dafa mel ni. allo. ku. allo si noo tudd. man la Aïda Mbaye. Aïcha euh, euh, kooku di dugg ci ligne bi mooy woy bu mooy mooy woy jur bu jigéen bu Pawlish moom mooy yaayu. waaw Ablaye Mbaye kooku mooy Aïda Mbaye. waaw Aïda euh, euh, ñu ngi lay nuyu di la dalal bu baax ci plateau confrontation maa ngi lay fay. Euh, di bàyyi nga wax ak sénégalais yi. Aïda da nga may dégloo da nga may dégloo téléphone bi bul dégloo ak télé bi. mu wàññi télé bi ah. voilà da ngay wàññi tele bi déglu ak. téléphone bi voilà ay Aïcha waxal sénégalais yëpp yow la ñuy déglu. àddina bi yëpp yow la ñuy déglu sax parce que police dootul police senegal police monde entier bi la. waa asalaamaaleykum. waaleykum salaam waaleykum salaam. maa ngi leen di nuyu. ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay fay. waa di nuyu bisu yaayu Pawlish. waaw maa ngi nii di mbay. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp man Aïda Mbaye. ñu ngi lay fay. waa di leen wax ne nag sama doom jii di Ablaye Mbaye kenn mënu koo toroxal. Ablaye Mbaye kenn mënu koo toroxal ñu koy wax Pawlish Mbaye ndax ba mu juddoo ba tey ñun ak moom la papaam nag damaa sëy ak moom ci farataas yàlla ak suunaas Muhammad sëy ak tàggoo ñoo ànd ma sëy ak moom yàlla def Pawlish am six mois ñu koy wax Ablaye mbay ñu tàggoo bi ñu tàggoo moom mu dem Gàmbi siini papaam yor ko maamam sax moo ko yor mu yaayu Ibou Sène Pawlish Mbaye sama yaay yor ko muy Bintu Dieng mu metti lool nag tar lool mu am jom lool bu ko neexoon fàtte démb mais fàttewul démb tey nag bi papaam génnee mënoon naa génnee neneen walla mu génne feneen mais nii mu génne neex na ma neexu ma ndax tey bu Pawlish doon tux wala muy naan wala muy sàcc wala muy def naka su dul noonu du ne mukk moo ko jur du ne moo ko jur yàlla def nag ma am beneen boroom kër ñu koy wax Lat Mbay Lat Mbay Mbaxar Njàllo Mamour Thiam ñëw baax lool bëgg sama doom ji lool dafa mel dafa xamul bi mu xamee ni kii mooy papaam su yàggul Lat mooy tette Lat mooy boot Lat mooy def lépp bëgg Ablaay Mbay su ñëwee danaan teg sabar yi wala mu teg sama ji su tëggee Pawlish tëb di fecc bu ñëwee ànd ak moom programme fu ne mu yóbbu ko fa ku muy dem Pawlish sax da ko daan jooyal ba yàlla def yaayam dem mbuur ànd ak Lat Pawlish nekk ca kër ga ak sama yaay bi mu ànd bi ma ànd ak Lat dem mbuur Pawlish nekk fa ak nekk fi ak sama yaay moom ci boppam sama yaay rek la xam Pawlish sama yaay nii rek la xam man mii sax léegi rek lañu kii nii mais sama yaay rek la xam Pawlish mooy jënd ceeb Pawlish rettuwuñu sama yaay lim ko doon yaree Pawlish moo yor suñu lépp man mi nekk mbuur gi Pawlish bàyyiwuma bàyyiwuma bàyyiwuma benn yoon sama rakk yee ca Tiwaawan pël moo jënd kër teg leen fa jàppale nag maamam ndax maamam mënoon na koo yar mu gestu teg ko nale waaye nag ñoo ngi sant yàlla mhm. ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax bi li toxul naanu sàccul ba bàyyee boobu mu gëj a gis ca ba mu amee six mois génnaat ne moo ko jur ñoo ngi sant yàlla mhm. ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax a baax xale bu am jom la mhm. xale bu ñu jooyloowul benn yoon su ma sama xolu rakk yee moo toqal ci seen xol yi neex neex barke sëriñ Bàmba man mi di yaayam sukk jur ko ñaanal naa ko te ku koy xool bu yaboo nga xool ko ca kaw Pawlish jàmm rek lay am barke sëriñ Saaliw Mbàkke sëriñ Saaliw rek laa gëm Pawlish jàmm rek lay am ku koy xool xool ko ca kaw maa ngi sant yàlla nag bu baax a baax a baax maa ngi sant yàlla bu baax jënd kër nag riig ma fa mhm. ma ne ko jënd kër nag riig ma fa waaye nag yàlla baax na mënoon naa génnee neneen lu dul nii dëgg la waaw kay maa ngi leen di gërëm nag bu baax di leen sant jërëjëf waaw jërëjëf jërëjëf Aïda jërëjëf moom sama copine la Euh, ay da ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax ci sa dugg ak témoignage bi nga xamante ne moom nga def Ablaye euh, euh, tey lan ngay wax ci li nga xamante ne moom la sa waajur bu jigéen wax. waaw. moom sa xarit la. waaw damay sant yàlla. amaana amaana mënoon naa demee neneen mais damay sant yàlla nit ku ne amul lu sant ci àddina damay sant yàlla. amaana bés bi laa doon ñaan yàlla ba sama papa génne moo ma jur. bés bi nag laa doon xaar benn bés gënalu ma ci àdduna muy bés bi tey mu génn ne moom mooy sama waajur bu góor ma dama ci am mbégte kontaan ci lool waaw du ko duma ko wax lu ko duma ko wax lenn ci àddina mënu ma koo torooxal mënu ma koo def lenn parce que sama waajur la kontaan naa trop bi ci bis bi mu génn ne moom moo ma jur. projet bi daf mel ni da nga ko namoon. non mais doom da koy téye. soo amee sa doom danga koy téye. <laughs> c'est dommage parce que amaana tey su ma nekkoon nit ku bon nit kuy dof lu bon amaana mënu ma ceex lu bari daal mais sama papa daal mais dafa lii nii lii nii mu def nii tey mu génn bi mu génn koo bëgg a yab damay yab mais amaana kenn du ma yab parce que man sama vie lépp dama ko wax ci internet bi sama vie lépp li ma dund laa wax. waxuma ne damaa dund luxe waxuma ne damaa am waxuma ne damaa kenn mës sa dégg ba ma prononcé wax sama papa sama maam lay wax ak sama yaay kenn mës a dégg loolu parce que man sama vie dama ko génne ci bedd mi sama ñàkk sama am ni ma sonne woon lépp laa génne ci ci mbedd mi tasaare ko kon man lii mu def nii barke salaatu du méttiwu ma benn yoon mais dama am yaay am naa ay rakk am naa ñu may seetaan am naa ñu ma bëgg te amaana tey génn bi mu génn am na ñoo xam ne ñi ngi naan ci ñaw ñi naan li te or ko ne ñi ngi ñaw lu ñu xamul mais ak lu mënti doon ak li mënta wax sama waajur la mënuma wax ci moom leen lu bon ku ma ciy faral yaa ngi faral erreur parce que sama waajur la parce que bés bi moom ma gën a nekk ci àdduna bés bi mu génn mu génnee damaa reetaan xam ne bés bi laanu xaar xam naa day génn lan ngay wax ñi nga xamante ne jàpp nañ euh, euh, euh, nee nañ police may li gën a yomb est-ce que doo dem baalu sa papa ak génn bi mu génn rek baalu la man maa ko war a dem baalu ji te damay dem parce que sama waajur la mënu ma ko baddi mënu ma ko wax lu bon mënu ma koo def lenn ci àddina su ma ko defee sama waajur la. waajur Moustapha beneen numéro bi bu fekkee mën nañ ma ko dugalal. waajur du ndaw mais mais na sóoraale am na ay nawle mais amaana aw ma fi way bu bon ci Sénégal. ok déedéet. amul way biis amul benn way bu bon parce que man sama vie nga yow tamit dof nga di. waaw mais dof la mais dof laa mais ci ci ci ci dof am caractère. waaw dof bu am personnalité dof bu la. do dof am personnalité dof bu xam mooy kan kenn du ma doon ba poñ ma te dof laa. kenn du ma doon ba kenn du ma doon ba sànni ma xeer. dof bu silusé laa dof bu suñu borom suturaal la dof bu xam dara laa dof bu xam àddina la kenn du ma yeb ci amul kenn du ko ma yeb ci àddina xam naa sama xam naa maay kan. mais est-ce que pa bi affaire bi jàllee jëkkati nga téléphone wala sa papa wala wala wala sa cousin bi ñu gisoon mu wax damaa damaa damaa mbégte ba mu génnee mhm. ba ma ko xàmmee damaa kontaan parce que sama papa génn kontaan waaw damaa dama damaa am contacté parce que sama papa génn damay kontaan ko mbégte ba moo ma gën a say su ma génnoon àddina sax moom ma gën neex ci àddina parce que génnee ne moom moom ma jur su ma xamoon ni su ma takkee jawar mu génn kon ma takk jawar bu yàgg ndax mu gaaw a génn parce que dama doon seetee pour mu génn takk naa fi war a takkee muy sëtu limaamu laa takk ki ma takk mooy jabar ju baax ki ma takk mooy jabar ju ma yërëm tey coow li tey bu nekkoon beneen jigéen la gi dem na yoonam bu yàgg waaye damaa yërëm xam maay kan xam li ñu dund man ak moom non danoo xam nga nit bu amee yërmande da mu ngi ciy xool ci ndayam ndax xale bu ne ndayam la mhm. yaayam moo baax pataw moo baax yaayam moom yërmande yaayam moo fonk nijaayam moo bëgg sëñ Bas. Ah. muy muy famille boo xam ne famille fi ma takk jabar du famille bu ndaw. Mhm. ko xam ne man yàlla dimbali na ma. Mhm. yàlla teral na ma bu yàgg. Mhm. famille bi ma takk du fami caaxaan te amul kenn ku ma ci xeeb mu yaayam di nijaayam muy sëñ Bas. mu sëñ Ablaay muy fàttaw laay tey bu tey buñ neexoon tey xeeb ma parce que fi ñu bokk la. amaana am nañ ci ma yërmande. fonk nañ ma xam nañ may kan. xeebu ñu mbindeef. ku may xeeb ñoom bu ma gisee dañuy reetaan. Mhm. ku may xeeb rek bu ñu ñoom bu ma gisee dañuy reetaan parce que xam nañ ma mel. Mhm. amul fameem famille yaayam ak famille papaam kuy gën lenn li ma li ma xam man te àddina moo am kuy gën fàttaw laay ak ku ak ak gën ak kuy gën Serigne Bass du am ci àddina. mais sa situation ak euh, ni ngay dundee ndax doon woon lu difficile lu metti noonu man soo ma cherché rek bëgg ma. su ma la soree doo ma bëgg mais ba ma cherché xam ma da ngay xam kii mooy kan. Mhm. li may signalé du man. déedéet. li may wax ci Sénégalais yi na waxi dof laay wax du man. Mhm. parce que xam naa ne dofuma xam naa maay kan xam naa fi ma bokk mooy kan. amaana nag damay gën a xam fi ma bokk parce que parce que papa génn na ne moo ma jur damay gën a xam fi ma bokk. mais Pawlish wax dañuy gis tu insistes sa maam. parce que moo ma yar. ak li ngeen jot dund. li ma li ma dund ak sama maam mënu ma koo nettali ci àddina parce que doon dama doon dund dund bu metti xam nga ni man fi laa fi laa fi laa xeeñee kilim yoof laa xeeñee kilim. Mm-hmm. barke Seyduna Muhammad billahi wallahi bu dee li ma amul yàlla bu yàlla moo ñibbi sama kër sama néegoo sama néego gënoon ñaaw ci àddina hmm. sama néego gënoon a bon ci àddina barke yonent may dund ak sama maam loolu di ko dund muy mbégte ci man muy di ko dund xam naa ne bés dana ñëw yàlla dina ma teral dëgg la mag sa maam ñoo bokkoon néeg mu jigi sa mënumaa dëkk sa maam parce que mag laa ma dëkk ci beneen néeg boo xam ne amul zeng su ma saan taw damay tiit kon kon moment nawet mu jotee du ma neex parce que xam naa ne sama néeg day taa xam naa ne damay wut ay pot barke salaatul ala nabi billaahi wallaahi laa la wax ah sama dama tëdd ci mallaa yi muy guus ma ciy tëdd parce que aw ma fu ma fanaan léegi damay obligé dama doon obligé di liggéey boulangerie pour kaar guddi dama doon liggéey kaar guddi pour bu xawee leer ma génn kaar guddi bi pour pour mën a tëdd sama néegu maam pour ma egg te rus naa tëdd ak samay rakk parce que toll naa mag laa ma sonn sama maam ma ci sonn ma xam ni sonn lu mel julli daa moon xotti xaw moon luy tabax ci di am korité yàqamtu ma ay fe 31 ak ma suul sama ndey musuma koo fee parce que aw ma woon musuma fee teg samay xarit 31 décembre amul musa sa fee teg samay xarit 31 am musuma koo feete sama àddina korite waxatuma waxi korite wax xalaatuma loolu ci lan maa laay jënd ak carax damay dem ba ne suba la korite quatre heures du matin laay laay jógee maata jeng jënd ay carax sol ko wut ci lan maa pour génn rek pour nit ñi xam ne am naa yére man xam naa ne aw ma kon lii nii dal sama kaw du dara. ak sama am nu mu la soutenir ci jamono damaa jàppale man moom laa xam bintu tey laa xam bintu tey laa xam ci àddina xaw ma keneen man xaw keneen ci àddina moom moom laa xam. man mooy sama àddina mooy sama lépp ci àddina parce que moo ma yar moo ma xam ci ñàkk judduma ci ñàkk ñu nekk famille bu ñàkk mais famille bu diiñ famille boo xam àddina famille boo xam ne xamuñu ñàkk xam na am parce que salaatul ala nabi billaahi wallaahi ñu ñàkk lool jude ci ñàkk xam ñàkk xam ni ñàkk di mel ci àddina moo tax lii génn du dara damaa kontaan ci sama papa li mu génn pour ma xam sama papa mooy kan lii souffrir naa ko ay 60 ans maa ngi koy souffrir pour xam sama papa barke salaatul fatiha <laughs> kenn gënu sonn ci àddina mais sonn bu diñ la man fi laa xamee kilim fi laa xamee néeg bu rafet. Hmm. fii laa xamee euh, euh, fi laa xamee fi laa xamee rafet yoof laa xamee rafet mais soo mosaan dugg sama néeg Pikine da nga may yërëm. et Lat dans tout ça amee Lat Mbaye. mu nekk papa ju baax. déggante ngeen. sax léegi na ma woo téléphone. mu ma jàpp ku ma jàppale lool. Mhm. ku ko xam maay kan ci loolu sax dañ koy dugal mhm. ci téléphone xam naa ni que régie bi jàll mais euh, dañ koy dugal moom it mu wax témoignage am balaa ñuy sori ci li nga xamante ne moom mooy waxtaan mhm. laat ñu ngi lay nuyu di la dalal ci plateau 2STV ziare allo waaw ñu ngi lay nuyu waaw ñoo ngi leen ziare bu wér di bàyyi nga dangay ngay déglu ak sa téléphone comme ça déggin bi mën a leer. waaw. Euh, ñëpp lay ah, ñëpp a voilà. wax nga dégg nga mhm. dëgg la dëgg la maa ngi leen di ziyaare bu ñu ngi delloo ziyaar. ñu lay bàyyi nga sànni sa contribution ci li nga xamante ne fii defe naa yaa ngi seetaan waxtaan bi depuis foofu nga nekk. waaw maa ngi direct nii. ayca. maa <laughs> maa ngi leen di seetaan. ayta ñu ngi lay bàyyi nga sànni sa kàddu ci li nga xamante ne moom la Ablaye wax léegi nee na moom Ablaye mbay la tudd. <laughs> te dëgg la Ablaye Mbaye la tudd. Ablaye Mbaye la tudd. Mhm. ndax euh, xam nga doom mm, doo ñaari doomu am doomu deret ak doomu xol. ak doom jula yàlla booleel mhm. bon ci moom laa jëkk a doom sax parce que moom laa jëkk yor comme doom te dëgg la mhm. yàlla daf ma boole woon ak yaayam ñu sëy sëy bu rafet ànd moom mi yàlla def maa ko yar man maa ko man la xam maa ko nam bañ na ko ba wàllu aar bi ma doon def sax moom la jëkkoon def ci boppam moom bu mu nekkee xale ma di ko tàcc muy fecc su ma masaana tëgg ba ñëw teg ataaya ci biir néegam ci biir néeg bi di di naan ataaya su ñëwee dama yore bongo di way muy muy fecc mbaa ma yore tama ji di tëgg muy fecc man maa ngi soog a gis kii naan mooy papaam ci bi mu génnee ci YouTube bi mais man Ablaye yàgg naa wax Lat Mbaye te moom waxul. Mhm. Ablaye ba mu sante mbay yàgg na du bàyyi mu sant mbay nag ba moment bi yàlla def bi mu demee ba gisatuma mu dem àndi jeeg ñam ma xamee woon demul feneen naa ah, moom ñam ma xamee woon la dem. te ñooñu ñoo ñëwoon ci tàkk gi. <laughs> waaw. Mhm. te gis naa njëye te njëye moom xam na ma bu baax. li may wax njéeréer mi mu nija mi nijaayam seede la ci lii may wax nii wax dëgg Ablaye Mbaye man la xam may papaam léegi lan moo indi mbay bi set mbay nga sant waaye yow tout temps sachant nga xam nga ne euh, euh, fay la sant ci ay këyitam lan moo tax defoo ci Ablaye fay bi mais parce que gisuma papaam ba pare Ablaye Mbaye la tudd te Ablaye Mbaye la jeex na yàllaa ko dogal bu fekkee gii na mën na nekk jàmm am xéewal ñëpp nekk ci tawfeex mi jiwul pour man du question dara mais bon su doon man du mucc daal moom bu ma doon moom daal damay wax bon mi parce que yàlla moo ma booleeg moom bi muy xale bon yàlla def mu roy ma ci ni mu bëgg boppam bëgg lu baax gis nga bi mu ma gisul daa dem àndi jeeg ñoom Viviane ñoom waali ñoomu daan gis papaam kan mooy papaam Lat Mbay moom la xam bi ma gisatul dafa dem ci ñam ma xame woon pour dund ma donc moom def na li mu war a def léegi papaam boo amee leen lu muy wax ak doomam na ko woo ndànk ci suuf waxtaan ak moom jàmm am yow ndax yàgg moom euh, euh, mës nga jéem a dox jéego pour moom mu gisanteeg papaam waxtaan ak moom comme bàyyi jiit la ni muy def ak nga xamante ne moom mooy doomam. non non parce que Ablaye ginnaaw bi yàlla defee muy fanaan sama dënn ba yàlla def ma jógee foofu dem Finlande bi ma ñëwee ñu toogaat tuuti après yaayam daal sëyi mbuur mais boobu fekk na man ak moom dund nañ ba pare am naa ci moom confiance xam naa ni dootul nelaw. Mhm. léegi Euh, ci jamono boobu maa ngi mbuur ba pare bi ma nekkee mbuur mooy jamono yi nga xam ni mooy bi may nekk ak ñoom Salam Diallo jamono yi aw ma ñu ak ñoom jamono yi aw ma jot boobu mais moom Ablaye moo am pour la am fit xamul kuy papaam moo am na droit def ci kayitam lat la xam parce que moom mooy papaam loolu garaawul. Babi la moo indi. non non ba bi moom man maa koy soo a dégg ci ki ki doon maye mais defe naa loolu daf ko cee wax noonu wala keneen wax ko rek wala yi defe noonu mais Ablaye Mbaye daal laa xam ci moom te dégg dëgg yàlla maa yar man la xam dañ mhm. na ko bu toog na toog na ak Thione Seck lu yàgg e, di wax ñëpp ne ma wooteel ma ni non non kii sama doom la man la xam xam naa ni ki ko jox numéro bi daf ko juumal benn numéro walay demee noonu mais Ablaye xam na ma ci nu ma ko bëggee xam na ma ci bëgg nit d'accord mm-hmm. Mouhamed Moustapha bu fekkee amoo beneen question non man ça va mm-hmm. non ça va waaw waaw maa ngi leen di jégalu bu wér a wér man tamit Ablaye yow daal li ma la wax mooy bonne continuation fexeel waxtaan ak sa rapport te nga gën a góorgóorlu jàppale sa yaay loo mën te nga fi nga teg sa tànk rek foofu la bëggal lu baax bañal lu ko comme ni ma la ko doon waxee yàlla na la yàlla jàppale yàlla na leen jàppale leen ñëpp bisu ñoo ngi lay ñaanal bu wér ndax li ngay def ci moom ah man dama part personnel mi nga xam ni baay bu ko yaroon laa de ku ko yëg laa ndax man la waroon kon ñu ngi lay ñaanal bu wér yàlla fay la saxoon ndax buñ ko amoon noonu lañ koy defee waaw te ñu ci it nag ñoo ngi lay ñaanal bu wér li nga ci def yëpp yàlla na la ci yàlla fay lu foo xasu njot ci barke Serigne man mi moom rek laa gëm ah waaw yow ñoo maag yow ñoo bokk sëriñ te yaayam ay ay xam la ma laaj donc maa ngi def kéem lu ma mën rek lay tàggaat sëriñ Taal dañ ko gën a dénkaat sëriñ Taaliw rek ndax moom du tànk la te am na jom bëgg naa jàpp xale bu am jom am na xolu quoi Ablaye Mbaye Baye Fall la day am lu baax yàlla baax na mhm. tegal sa fi nga teg sa tànk rek foofu la laaj nan naawes rek mën daal lii laa lay lii nga nàmp ci man def lu baax wax lu baax sol lu rafet bëgg lu baax fexe dem ci nit ñu baax ñi fexe am lu baax lii laa la nàmpal nàmpaluma la leneen ay waxal ki xuloo kii yëpp yow na nàmpoo ko ci man yow li nga nàmp ci man mooy fi nga ko teg nii def lu baax wax lu baax di sol lu rafet fexe di def lu rafet comme ni nga koy defee nii mais laat j'espère que yéen a ngi dox ay jéego yoo xamante ne euh, moom dina fexe retrouver waat parce que tamit ak nu mu mënti demee rek waaye jur doj la boo dalee ci kawam toj bu dalee ci sa kaw toj nga toj waaye est-ce que yéen a ngi dox ay jéego xool nu retrouvailles ak toog wax amee yan conseil nga ko ci jox moom yow. non am na ma ko woowee dama ko xamal ne ko te xel nga dem ci sa papa te bu la télé topp dafa lépp ci sutura ne ko nag fexeel naxanteeg sa papa neexal ko bul ànd ak ma sàmm bul ànd ak ma dem mhm. waaw ne sa papa la mais yow maay sa baay wax naa ko foofu nekko yow maay sa baay ma man nga lam mais du tee ne nga xam ne mooy sa baayu géñ demal nga def la tout fexe ko bégal ndax ñun ay baay faal lan ay taalibe lan dañuy ñaan sëñ Bàmba rek lépp baax ñëpp am jàmm ñëpp am xéewal jërëjëf jërëjëf yaay faal jërëjëf lan yokkoog ndam yàlla Sénégal am jàmm ju bari amin jërëjëf ñu bokk lépp ci barke Cheikh Khadim jërëjëf euh, kooku euh, police dégg nga sa papa ji nga xamante ne euh, loolu la wax mu def ay témoin ay témoignage jëmale ko ci yow wax ne mooy sa baay moom moo la jur ah. waaw Ablaye nag bu fekkee ne que police nag émission bi yëpp da nga koo nar a jooy oh. man mënumaa siggi xool parce que xam naa yow sa fula sa personnalité sa am jom man aw ma xarit daw ma dikku ma Sénégal yëpp yëpp wërngal képp xam nañ ne yéen yéenay sama xarit te wax dëgg yàlla dawuma ci dara biisu foo ko gis këram da nga naan Ousseyn ngi jaabante policier ngi jaabante Youssou Dieng euh, Youssou mi ngi jaabante ñoom njambaxit ñoom ñëpp man en fait euh, euh, te li may wax à chaque fois Ousseyn nit ku bëri yërmande la kenn ku ci nekk ci ñoom mën naa am seede bu may def ci yow bu ma àndoon bu ma bu ma bu ma toogoon léegi dara dal ma Abdou Aziz Ouzin mën naa toog ci sama wet ba ba may tane kenn ku ci nekk ci ñoom mën naa laa wax ban jikko la am kii bu ma àndoon ak bu ma bon du ma tudd benn turu kilifa su ma àndeek moom bu ma duggoon biir pale mu jàkkaarloog Macky Sall fekk Macky mu génn bu dugg see bu ko nuyul Ablaye Mbaye du jug fi mu toog pour nuyu ko laa wax ci fànn yëpp nag tukki nañ ay rapport ma di ko xas ba ba ñuy egg dugg nañ fépp fu damay tukki am envie yóbbaale leen ma gàddu leen yóbbu ñuy xeex ñuy xeex ba ba ñuy egsi euh, donc kenn ku ci nekk ci ñoom xam naa lan mooy sa personalité ak lan mooy ban façon nit nga moom nag dafa nekk nit koo xamante ne police mbay bi police dof bi ci tele yi ak bu caméra yi tàkkee ci layam bu ngeen génnee wala ngeen nekk ci leneen beneen nit ngay gis beneen nit ngay waxal bu am personnalité nit ku am caractère nit ku am fulla nit koo xam ne du wax benn wax ñaari yoon police dafa tàng kaf gi nag yooyu yëpp mën nañ koy kaf léeg bu caméra yi tàkkee ak yu ni mel waaye xale bu am personnalité la Ouzin sax c'est à part keneen à la police il fait son business ci li nga xamante ne moom mooy li nit ñi jàppee mooy euphorie boobu yëpp bu ci amee lu ci raxu munta ñàkk ñu defal ko li lu ñu mel nii toog waxtaan mënoon nañ da ngay dis sax ku ne lan lay saa salaam en waaye man li tax du ma bett du ma ump waaye parce que xam naa lan mooy mébétu xolam xam xam naa lan mooy jooyu xolam moo tax day xaw a difficile ma ay question réponse di dugg parce que su boobaa dootul doon question réponse weerante lay doon parce que lu ma xam la déjà ci moom euh, am na ay question poignant yoo xamante ne wala ay wax yoo xamante ne bu ma ko ko tey defe naa ne émission bi fii lay yem waaye euh, juguñu pour loolu parce que dafa am parti boo xamante ne moom moomatu ko sénégalais yi ñoo ko moom looloo fi indi li tax mu toog fii tey ñuy waxtaanee dugal yaayam dugal papaam euh, dinaa ci am nag akus néew benn simili bii may wax nii parce que yaayam wax na ko léegi bi mu duggee li tax ñu ci bari gisuñu leen ci xew bi ak yu ni mel man maa ko bëggee woon noonu parce que fi ñu doon dem la euh, euh, du kër goo xamante ne dañ fay dem pour di def ay protocole parce que ay kër kilifa la ay ay ay ay doomi euh, ay doomu nit ñu baax lañ ay doomu kilifa lañ donc du ay festivité Ablaye xewam li ci nekk ci ay nit ëpp na xamelam man sama bërët Abdou Aziz boo ci bokkul xajut fenn waaw bu ma bu ma jugee rek ñu doon ñaari nit rek dem ci alsaan dafa baax rek mbay waaye dama ko téye ba sonn mu ne ma déggoo ma du ma la bàyyi nga dem yow kase dama lay gunge par force ci ëffëreem jugam ci lañ jugaale wàcc noonu dem def li nga xamante ne moom lañuy ñuy def buñ ci gisulee ma sàmba gisuñu ci ba dem ba parce que euh, euh, euh, yaayam dafa ne ma biisu Ablaye Mbaye ay yaxam laa la laaj duma joxe bopp rocci làmmiñ du ma bouger mètre man maa jug dem joxe wargon du ma sàmm du ma dem ba ab Ablaye nag mën naa nekk nii mu nekk nii ñu yaakaaree ko ay milliards dëgg la xale bu am jom la police jëlal appartement Ousin jël na appartement mu ne ma du ko def néeg bii ci lay yem damay utal sama yaay fu mu dëkk ba pare xaalis bi sama loxo bii la tege mu jënd terrain mbuur di tabaxal yaayam man du ma ànd ak ku ñàkk jom parce que ñàkkuma jom man lu ma am samay mbokk moo ma gënal man de façon je suis entouré de ma famille donc du ma ànd ak xale boo xamante ne àndut ak ay mbokkam kii deuxième njëkkeem magam la sooda mën na nit caméra mën na tàkk ñuy foo naan diw ak diw diw waaye cër bi dama koy nangu parce que maa ko moom keneen mënu ko woon moom sax nag ndax bu ma tëddee ñoo ma tëddal bu ma bu ma yeewoo ñoo ma ñoo ma yee ñuy may nekk ak ñoom matin midi soir sénégalais yëpp teg ci seen bët nag parce que saa yi su ma snabee snab bu yàgg sax ñoom ñi laa snab waaye euh, euh, defe naa situation day am nit nga am foo yem am foo yegg waaye loolu ñuy yaakaaree ab Ablaye jom rek la am waaye amu ko déedéet jom rek lay demee fulla ak fayda su may ndugg sama ndugg kër sax maak ñoom ñooy ànd bu nuggee ci oto bi la koy yëpp yóbbu yaayam feet lu mu neex neex lu mu guddi guddi guddi police mbay moo ay kër maamam loo ko wax mu ne la Bintu Dieng bu ma bëggee wax ji wala ma bëgg ko chantage ci dara sax dama naan ko waatal ci sama am ba pare loolu ñëpp xam nañ ko donc euh, euh, nit nag du lenn loo koy doyee lu dul njariñ ay nit bu ñuy ànd dañuy jariñante baaxoo ma sax di invité nit di wax ci détail yu mel nii mënoon nañ ci wax ba jeex waaye moom dafa bokk ci nit ñi nga xamante ne mënuma leen invité di doxal lu professionnel parce que moom subaak ngoon gu guddeeg bëccëg bu solo bu simmeekoo bu toogee bu taxawee lépp man la yàlla suñu borom la sax waaye daf ko jaarale ci man ndax kenn mënul ñun ñii ñëpp yàlla suñu borom moo ñu dimbali donc dañuy def kenn ku ci nekk kéem kàttan lu ñu lu ñu mën côté vie privée bi nag moom xëy na moom dina am personnalité ak fulla gu toll ni Euh, euh, gis naa it commentaire yu bari moom it euh, nijaayam bi dégg naa ko mu ne dafa may ay jàmbur waaye jàmbur boo xamante ne wax dëgg yàlla. te kooku du sama nijaay de. xaw ma ko de. ah bon si. ki toog ak sa papa wax xaw ma ko. xaw ma ko parce que man. waaw may xamoo woon sa papa peut-être papa na. parce que man non man bu ñu rax neex man samay samay takk samay nijaay ñëw nañ samay rakk ñëw nañ parce que man ñoo may jabar. Mm. ñàkk ñu fayda ñàkk fayda goo xam ne. sama famille duñ ñëw ñu may may sama amul sama benn famille bu ñëw tamit mënul nekk mhm. sama nijaay ñëw nañ ci takk bi samay rakk ñëw nañ damay gis ay sorties yu garaaw sorties yoo xam ne samay xarit samay xarit proche yoo xam ne samay xarit lañ sama kër lañ nekkoon mais Cheikh Mbacke gis naa ko ngay jëlee sama ndugg yi ak sama ndog yi di leen yóbbu di leen yóbbu Cheikh Mbacke gis nañ ko mu def sortie waaw parce que ko ci waxaale waaw parce que sortie bi moom sortie yëpp neexuma mhm. benn benn sortie ma marqué mhm. mu sortie Cheikh Mbacke Cheikh Mbacke sa gaayam la yow xaritam la kii kii non non kii ki Mbacke ki Cheikh Mbacke kii kii kii kii kii doon feccal baaba mhm. mu nekk loo xam ne moom a gën a métti ci àddina ñaar ñu nit ñuy ànd amaana bu ma xamul lu bon dina ko génne mais nit nag bu la rawee bu la neexee wax lu la neex moo ma jiitu ci aar njëkk ma ci aar suñu borom dimbali ma nekk ci kaw moom ki ki mu bëgg ki mu yaakaar man la bëgg waali te man la fonk man la xam maay kan man la njëkk a yóbbu ma tukki ci àddinam xanaa xamoo ñi may yéene ñu bon ñëpp ci moom dañ may xaar ba ba may dem ci sa biir kër soxna di la ñaanal barki alxuraan maag moom téléphone ba bu may egsi barki Seydina amul benn pepp lu rax ci li ñu yóbbul euh, euh, euh, duma ko tuddee sax warugar lu umpuwaale ci ci dooleem. ci xaalisam. ci dooleem ci léppam. ci dooleem. yu defal ma nangam defal ma nangam ba 4 heures 5 heures du matin mi ngi xool ci lu ma toll. barke alxuraan donte Abdou Aziz gis nga ni ñu bise yooy woon. Oh. ci période tabaski bi. nit ñi muy def kéem kàttan lu mu man su ma waxee bu ma ne ko arrêté mu ne ma ne ko tey yaa ngi ci euh, euh, rus naa sax di ko tudd. dafa 207 millions. ci aide Aziz Abdou Aziz. su ma waxee xam nga ne ci chiffre laay teg laay wax du ma waxantu sax day wax ba egg fenn fi ne ma ci ñaata laa toll ma na ko ci nangam nga toll mu ne nañu egg si ci nangam loolu nit a koy def. Mhm. du nit nag ab police nag ñi ko wër ñëpp sax wax dëgg yàlla mënuñoo nattali sa yëf nee naa la fii lay door a yem rek dañuy teg suñu baaraam foofu ñu dem parce que baaba day wàcc. Mhm. non non yow da ngay jël temps di foog nga wax. Ah. waaw. andi micro il faut ñu indi micro jëmale ko fii. point bi ñu bu fekkee mën nañ jox loo leen wax ci moom xam nga ko de. Euh, dañuy ñëw ci point wu Cheikh Mbacké ñu ngi ñëw ci ci fànn boobu damay bàyyi Abdou Aziz Sandi si kàddu ñu dem. ci baaba ñëwaat parce que pare ko yaa ngi toog sa suuf. te Baba dafa war a joué ji ci kanam te il faut ñu ñëw ci débat bi ak moom ay ci xam naa dinaa ñëwaat mais point Baba émission télé kenn ko rax ak génn ci yi nga nekk nii àddina yëpp a seetaan fi mu ne nii te ñu lay seetaan ni néewuñu gaynde xajuñu gaynde sax ay ci point bi ñu nekk dafa sensible ñun hmm. ginnaaw raay lañ dëkk daanaka ñoo ko yar Khadija Samake hmm. laay ay fan ñii fi nekk tey jii ba ci Modou Café ku mu mën a doon ñun bi ñuy xal Ablaye Mbaye ñu ngi koo xamee kër bu Cheikh Boy Naar mu nekk xale foofu la nongoloo fooy fa la baaba fooy fa lañ fooy mu nekk xale bu ndaw waaye nag Pawlish benn baat rek laa lay wax ku baax bari baay ku baax bari ndey loolu moom na nga ko xam fi nga toll nii am na yeneen baay yu ñëwaat ah. yii ya feeñ. lat wax na sa papa wax mais man mii sax moo mën a na doon paa jur la fi mu nii dama lay jur ku baax ñu bëgg laa jur li dal baadoola dalu la xam nga lu dal baadoola dëkk ñu rey la nag nga ñibbi di ñaan yeeli yow nag ku ne bëgg na laa jox cër dalaa mënta jot moo tax kuy wax tukulóor ku la njéeme daa xamul ñun ni nga def rek cakkas rek danoo doy ba tax ñun ñun waa Pikine gépp danoo bootu ndayalee suñu bopp ndax fi nga teg jàkkas ak ni nga ko doyloo xale bi nag li mu wax rek dafa doy mooy suma baay la waaw démb dañ ma jël lenn interview man leen nu mu mën a mel rek nañ réew mi wax di wax ci jàmm ndax lii du kaa ñu bëgg ko jël di ko di ko di focus ci di ci wax te amul benn sens Abdou Aziz muy actualité bu la sonaloon parce que c'est normal moom la xëy na dama tax ko dafa tax ci man waaw ku ne di la woo Bijou dox si nangam dox si nangam dox si nangam peut-être sénégalais la ëmp mais man situation bi ni mu li mu ma ëmpee. Mhm. góomu xolam la bu mu amoon. waaw di mébat moom fii rek la waxe di gis nit di mébét di ñaan yàlla. à chaque fois nit kii xaw ma lan laa ko def xaw ma nangam xaw ma nangam bëgguma dugg ci détail. bëgguma ko xam nga tey jii moom li ma ko wax sànq rek ne ko am na ñu nekk hôpital ñoo xam ni su Ablaye Mbaye waxul pour nga tiim opérer leen sax day jafe. dëgg la am na ñoo xam ne bu ñu xëyee seen kër. bëgg a soulager wu même bu ñu amul dépasse wala ñu bëgg a dugg seen njaboot waxtaan faaw ñu jàpp Ablaye mbay il faut que ñu xam ni genre nit yu mel nii yàlla moo leen sàkk suñu biir pour ñuy faj am na ñoo xam ne dañuy xëy suba ba ngoon ree tële duñu ree duñu kontaan te nit dafa war di ree léeg-léeg nit romb la gémmiñam xasaw nga defee ne pâte dentifrice mën na ci dara mën na ci dara parce que du ree il faut que nit ñi di ree il faut que nit ñi di bëgg Pawlish xale la nekk xale boo xam ni nu ko ñëpp yéene jàmm li nga li nga wax nag sànq dañu ci d'accord sa papa la sukkal raamal ndax bàyyi du maas du morom mais nag mënoon na koo defee beneen façon beneen façon bi mooy woo la ne la ni nga defee nii ah bëgguma ko de nangam nangam mais xëy na ku baax ñu bëgg laa jur jërëjëf. Abdou Aziz est-ce que du génnam bi mu génn moo tax sax moo waral jotaay bii. est-ce que du génn bi mu génn ci réseaux sociaux yi xam nga génn bi mu moo waral jotaay bi. ak ak ñi mu àndal. boo tourné gis Tukulóor Kure Njéeme gis Viviane gis Alsane Mbaye gis loolu ni mu voleur boobu mu am il faut que nag nga chercher sa doom xool ba xam fu mu nekkoon mais bërki Dembo Ndiaye gis nañ fi benn waajoo xam ni day jaay ay garab du tudd turam mais saago ko wax ay wax yu ñaaw ana boobu baay bi taxaw war a war a ko plaider. mooy. Euh, euh, euh, Ahmed Cissé Cheikh Ahmed Cissé wax na ko waaw tëkk ko ba ne ko suba da ngay dee bis tàngam waaw waaw waaw jour boobu sama kër la fanaan ne ma suba laa war a dee ma ne ko kon nañu xool nu ñu reeree léegi rek reer bi neex rek waaw boo dewee suba ma xool nu ma nuñ la suulee moo tax moom d'accord na ni papam la na la moom biisu mu dem tuubal papam ki ko ñaanali woon jabar nee na sama nijaay la waaw sunu nijaay sama nijaay la yaa ngi dégg ñu dem waxtaan ak moom mu jeex mais en tout cas lii du cas bu ko gars yi la ngay gis da ngay bërki dem dama waxtaan ak benn journaliste pare mais est-ce que du plateau bi nii nii nii papam ci moom moo ko waroon a éviter waaw moom Ibou Sène en personne moom moo waroon a éviter li nga xamante ne mooy plateau bi non warul woon génn mais warul woon génn wax xëy na day am ay moment yoo xam ni ku bëggoon ku ne gis nga ku ne boo sañoon jur public sa papa dafa am benn ku mas a romb sama papa dafa am ku ma sa romb ma ni ko papa waaye kii li mu sol rafet na mun ma bul ko ñee man naa yor lëgët boo xam ni bu la ko nettilee doo ko wax ku ne am nga kii mais li am chance ba am chance mu xam ni papaam la sunu papa la nanu dem jéggulu ko ñépp jug jéggulu ko loolu moom moo am chance en tout cas di la ñaanal yàlla yàlla defal la jàmm. amiin amiin di la xamal ne Pikine gépp a ngi sa ginnaaw. ay doomu Pikine rek ñoo fi nekk. bu ñu toogee fii lu mel ni am Baba Mbengue ngeen fooyandoo Cheikh Mbacke Baba Mbengue moo ko yar këram la nekkoon mu nekk rakkam yar ko ba mu egg noonu moom Mbacke seen libaas ak ay xale yu bari baaba mii ngay gis tey jii am na artistes yu bari yoo xam ne daf leen jàppale te du mas a toog wax fii nag ku baax nag bari ndey bari sa sa ñaari papa feeñ am na yeneen papa yu ñëw. <laughs> jërëjëf Abdou Aziz baaba may ñu euh, euh, ñaar ñaari morso waaw may ñu ñaari morso euh, ñu dugg ci waxtaan bi man ak yow tuuti rek le temps may may police may mu mu soufflé ñu dugg ci lan moo ko war a naqari ci li nga xamante ne moom mooy kàddu yi yi yi Cheikh Mbacke wax Ndiaye Dimassi Madiaga Demba international kon yegsil yaa ngi daas mbëggeel lay jooy la mu riiroo la yenn saa yi mu tukki ba sa xel mi sore waaw Aziz Ndiaye kuy gewal yegsil Sama kii Khadija mu Seex Isaa ziar bi tey yaayam oh ma jaaga international yaa ngi daas li yegg si li yaa ngi daas jàng nga métier mi ba jot sa diplôme marqué nga empreinte bi ba doomu aadama yëpp di la bàyyi xel Khadija Ndeye Khady yow Ndeye Khady kumba bi tey moo sa dee tir bi naan love yow bëgg nga te ko tëj ci sa xol na la la wan a tax nga déglu sa àdduna benn mi laa bëgg naa la waa baba yaa ngi way ko Anas Njaay Yuusu Baara Njaay sa baay Yali Kumba Faal Njaay kon yegsi banlieue de. lan moo tax sénégalais di laajte kii kan la. waaw Bijou avant tout damay nuyoowaat bu baax parce que lépp loo gis àpp lay xaar sànq Pawlish wax na la wax ju yéeme. Mhm. dañoo galéré dañu jaar fu metti amuñu woon soutien amuñu woon ku ñu jàppale amuñu woon ku ñuy taxaw. ñun ñoo njëkk a nekk xale boo xam ne dañoo gëm suñu bopp dem tropique jóge Pikine dem tropique di fa tëgg tous les mardis avant tropique ñu jaar ci simb yi avant mhm. tropique ñu jaar ci mbappat yi avant tropique ñu jaar ci ngénte yi mhm. xoslu ànd ak ay ndaanaan yu mag di ko mbappat di ko mbappat ba formé groupe bi groupe bii bi mu nekkee ay sabar mi ngi tudd group Thiat Mbalax Pire. ok. Mboy Jabaay xam nga ko. ci Mboy. Jabaay mii xam nga ko. Mhm. waaw ñoom ñoo ñu formé te ñu jàngal ñu àdduna xamal ñu artiste nan la war a mën a def ba ëllëg bu ràmpee mën a téye boppam wax ji nag bari na. Mhm. baaba ci lu mu nekk baaba lu muy def baaba da ngay réer tout le temps pourquoi baaba du génn pourquoi baaba di préférer à chaque fois aw aw kase la gis ci baaba baaba ay morsom pourquoi du ko du topp promotion bi ba ni et baaba xale yi fi nekk yow yow yaa leen dàq yow loolu moom kenn waxatu xale yi li ñuy def maa leen ko njëkk a def dëgg la mhm. mooy challenge waaw man 2016 fekk na ma commencé tëgg almadi leer na kii toog dëgg man pour ay problème mu g almadi du sama suuf si hmm. bi may ñemee dugg almadi benn boo ñëwu faa dugg waaw lan mooy suuf si baaba kon ci carrière yaram lan la baaba bëgg def suuf si baaba mais ñi ci war a jàpp nañ ci jàpp mais Baba euh, bu ñu boo waxee loolu mu nekk nga nekk artiste Pikine ku wax Pikine xam ni solidarité ku wax hmm. Pikine xam ne artiste yi fa nekk yépp ku ci jug même bu fekkee am nga benn jàppale yow sa talent mën na la jaay. dëgg la te yow ñàkkoo talent. waa ñuy wax ginnaaw artiste sax moo taxoon ñu. voilà mais nga toog ba moment bi ngay joué ñenn di ose laajte kii mooy kan ta nga am talent donc est ce que jàppale kese la. waaw il faut tamit ngeen comprendre ni doomu aadama du may boppam. Mhm. yàlla. mooy sàkk jaam ni mu ko neexee di ko defee ni mu ko neexee. Mhm. li ëpp solo mooy fexe nañ ba ñu ñaan ñooy percé wala ñooy def tës fexe nañ ba ñu jox ñu respect kenn du dégg ci ñàkk fayda. kenn du ñu gis ñuy def lu ñàkk fayda kenn du ñu gis du ñu yërëm. non non Baba du côté boobu parce que du question de ñàkk fayda talent Baba personne n'en disconvient parce que Baba dafa bokk ci xale yi nga xamante ne dañuy aw ñi gën a difficile la way. dëgg la ñi seen ñoo ñi nga xam ne nax jàpp nañ ne malaaka way bu doon wàcc seen kër lay dal. ay alsaan bay ay ay ay. daba sëy ay kumba gawloo ay ay ay daba sëy faatu géwél ay faatu géwél seka ñoo xam ne aw leen dafa metti mhm. baaba yow ñooñu yaa ngi leen di aw waaw ñooñu yaa ngi way ci seen ay morceau mhm, mhm. léegi lan moo tax boobaa baaba euh, bokk nga ci njëkk ibbi émission confrontation dëgg la te confrontation am na douze ans ci ren dëgg la période bi ñuy dem Zénith ci lañ tourné émission ak fële dëgg la kër waxam kër waxaab kër waxaab mariste baaba Baba tarde à se propulser nañu waxante dëgg. coque mhm. bi am na fu mu nekk soit ci Baba la wala ci baaba euh, ñi ñi ko a ñoo ko mënut a manager ba mu ba mu fël wala lan mooy problème waaw ñun parce que li ñu war ñu ngi koy def. bu dee way way waa waa ngi fi. exactement li ñu war moom mooy bu ñu yeewoo ñu ngi suñu liggéey tout le temps semaine bi dañuy tëgg lu bari macha allah. Euh, di produire ci boîte yi nekk ci dakaar gépp mhm. amul benn boîte boo xam ne rek tey jii baaba tegu fa orchestre am joué ba ci gaynde gi ngay wax à part Keba Seck maa fa njëkk a tëgg ci Jëntalan waaw mais li ma lay wax rek bisu chaque jour ñun li ñu mën mooy di wane suñu bopp ak groupe bi li ci des suñu borom la ak ñi nga xam dañ cee war a jàpp ndax ku ci mel ni waxam waaw ñan ñoo ci war a jàpp à part waxam waxam nañ ko teg fële parce que c'était ton producteur c'est ton producteur waxam c'est c'est waxam Baba c'est un pur produit de waxab ouais. voilà loolu loolu Baba c'est égal waxab mais lan moo tax waaye Baba nag génn ci yi nga nekk nii waaw da ma laaj ni ci war a jàpp waaw comme nii nga def nii xam nga buntu boo ibbi bu subaab bu ko keneen defee keneen ak keneen def ko mais na pour ñu def ko yaay jub dox ci ah mais maa ngi dox ndax barki mais wax est-ce que problème bi du yow itam euh, jéemoo def li gars yi def ci jamono ji pour mën a nekk au parce que quoi gis nañ ne artistes yi nekk ci bu jamono ji yëpp ñi ngi jéem a seet à par euh, rapport ak seen i ñi ngi def li méngoog génération bi mhm. ci seen i clip ñi ngi def li méngoog génération bi mhm. est-ce que yaa leen di fekk ci ñoom ñoom univers bi ñu nekk waaw ñu ngi ciy liggéey parce que boo gisee morceau bi waaw nag foofu la problème bi nekk yow waroon nga liggéey loolu bu yàgg wala waaw ñoo ñu ngi ciy liggéey parce que mhm. njëkk nañ génn benn morso bu tudd euh, princesse princesse mi ngi wax ci sañse mu ngi wax ci xale bu jigéen bu jongoma mi ngi wax ci xale bu jigéen boo xam ni bu sañsee nan la war a def ki démb jaa ngi gis single bi ñu génnee tuddee ko sexe neex mhm. amagul sax deux semaines xale yi du ko challenge di ci bàyyi xel te yaakaar naa ne moo sabab suñu diggante ak Bijou Ngoné liggéey bi sexe neex sexe neex waaw dégg naa ci du ne mhm, moo dégg naa ci dégg nga ci dégg naa ci lu ne <laughs> yaa ngi dégg Big Taf <laughs> ñu nekk nag ci dëkkuwaay boo xam ne euh, li nga wax sànq banlieue dañuy jug di sot ñu yàgg nag ñu jàppale banlieue zar yi yàgg nañu. kii yee njëkk xëy rek di xeex man ci sexe bi ne lu tax ngay def vidéo naan ay sexe yow yow kilifa nga Amadou Ra di wax ay ay sexe mais man ko man la. mais mais boobu boobu dañ de man sexe neex lan la. boobu dañ maa yónni de ma ma daal koy jottale. Ah. <laughs> ok euh, ñun dëkk bi ñu dëkk muy banlieue. yàgg nañ ñoo jàppale yàgg nañ ñoo taxaw fure ne musuñu tëgg te doomu banlieue yu jugul hmm. xëñ na nag lépp lu war a neex faaw mu metti mi booba man métti bi xam nga fii lépp dafa métti même ñi neex la ex fii sax métti na hmm. xam nga nag day xaw a difficile mais confrontation lañ ñëw quand même euh, euh, euh, man faaw moo li ma bëgg dégg moom faaw moo koy dégg doon noonu peut-être noonu la mais baaba am na am na quoi bi fu mu amee soit baaba dafa compliqué métier ménager <laughs> wala baaba am ay principe yoo xamante ne ah. ñoo ko yóbbee li nga xamante ne moo ko en fait parce que baaba jeune talent jeune nga tu es jeune certes mais baaba ba nga amee du talent yi nga am te du talent yu mu jiite yow say say waay accès yooyu du at yi mu jiite doonoolu boo ko ci jeune yi de doo jeune yi doo jeune kenn de doo gën a kenn ci way bi fi mu ne nii bi nga ko dalee def dafa yàgg de wax mais dafa am loo xamante ne moom moom moo bloqué Baba blocus boobu lan la. waa ci Big Taf man mënumaa gëm nit soxla nit ki ba pare di compliqué ñun duñ compliqué mukk yaru bu mu ëpp la wala lan la. yaru pour pour pourquoi. showbiz dafa ànd ak caay-caay ah. waa mais caay-caay gi mooy bu ñuy dawal. les trains qui arrivent à l'heure n'intéressent pas le showbiz. comme ci ban côté. ci fànn yëpp. waaw ah. bu dee da ngay reer tëdd bul def showbiz. bu dee. da ngay reer tëdd. ah def showbiz. non non loolu moom mënuma ko. <laughs> bañ naa ko fa sax biisu man du ma nelaw guddi mais comme ni big tax fois oh, ñun mu doo nelaw guddi parce que suñu liggéey moo laaj mbooloo mënoo soxla mbooloo ba pare di compliqué wala ngay rëy kii waxu la waxu la ñàkk bañ a tëdd yow ci cadre da nga léegi ni ma. est-ce que dafa am lu muy def artiste dafa def a yëf. Ah, ah, artiste day saay saay bandi daal da ngay def lépp <laughs> waaye kii waaye kii mënul def lépp de kii dafa lépp yàgg de ah. <laughs> ma neex de mm. baab mii def na bu yàgg de. Eh. te biis moo dàq way ci bu xale yi dama lay wax laa la wax non da ñu wax dëgg bi ah. Mm-hmm. waa Pikine ñooy boole jàppale ko. waaye Pikine bëri na artiste. pourquoi moom kese moo dàq way booy yi nekk Pikine dama lay wax man kii. booy yi nekk Pikine moo dàq way waaw bi ngay nangu loolu ah. moo dàq way ñëpp. exactement waaye bàyyi waaye kii moo dàq way bi ngay way bi ngay way quand même. nangu loo sax euh, kii moo dàq way def diir mi ngi bëgg def diir bi ngay way. non man fekkewu ma période nangu. après juste période boobu la. juste après période boobu da nga parce que période nongu nongu loo mi ngi def vingt ans léegi doolu dafa laa fekkee ay Cheikh mu sëñ Babacar Si ak ñoom Moussa Yaay Joor ak ay ñoom Moussa Fall man ñoom laa fekkee <laughs> mais ba est-ce que amoo problème encadrement ak management est-ce que compliqué woo ah <laughs> mu ne ko est-ce que amoo problème encadrement ak management eh, est-ce que yow compliqué eh, woo kii ñi ba tey ñoom lay àndal ñi ngi nii ñii lay àndal ba tey kii amul problème boobu de problème mu waa Pikine ñoo ñoo jàpp ko rek te Pikine artiste yu mënut a way Pikine nañ bàyyi kii way Pikine daa bëri ay waykat yu mënut <laughs> non daa bëri de. nañ yeggali fi ñu nekkoon Baba yeggali fi yow yaa war a génn suñu waxtaan yi. police da nga am problème. waaw na nag xam nañ exactement nu ñu sant ko sama xol nag loolu jeex na génn ko sama xol. bu may indiwaat problème bu may indi problème li lay naqari yëpp mën naa la ko wax tey nga ba bàyyi ma jàppatoo ñàmb rek ah kon noppi ah. man su ma tooyee timide amuñu problème mais man meluma nii bu ma indi bu ma indi ci parce que seegee den maa xam ci kaf ak kii ngir yàlla bu ma indi ci bàyyi ma kaf rek tax sama xol ñëwaat la kaf bi da am problème mais sa problème sant ci la ñuy gérer non problème loolu loolu li nga ko daddi daddi day ñëw daddi amul benn problème waxtaan nag sama daddi bi sant fay wala bi sant mbay wala bi sant ba <laughs> waaw yow laay déglu. waaw ma sa sant mais naa ko lu jënd de yow def ko jugement. 20 janvier. problème 87. ku ku jaama mag noppi waxal. loo bëgg ma wax. Abdou Aziz dégg ma soxla mu ngi ci baaba baaba ñëwal ci lam moo tax munoo fexe ba toj fi te tojkat nga ci loolu laa da nga am la bëgg ma wax mais bisu sànq ba tey maa ngi lay wax non non non mais Baba xam nga loolu nga wax noonu mm-hmm. d'accord naa ci mm-hmm. que ñuy jàpp ci que ñuy mais yow da nga doxul benn jéego pour pour dox dem ci loolu yow da nga yem ci ci ci waa d'accord waxuma nga bàyyi waxaab de sama wax boo ko déggee day xaw a mm. mais est-ce que jotul tam nga ne fi ñu ko waxaab yow ah, ah loolu nga gis dama laajte de question la boo boobaak léegi comme yaa ngi ci waxaab amoo benn tànk jéego bu nit ñi xamee tey ñu invité baaba nii nit ñi di laajte kuy baaba te ñun ñëpp ñu xam ne mm-hmm. baaba waykat bu mag la fii ci réew mi sénégalais xamuñu kuy baaba est-ce que jotul tey yi baaba xool fi mu nekkoon est-ce que warul am beneen changement pour mën a dugg ci li nga xamante ne moom mooy li tax sénégalais yi xam li nga xam ne moom mooy liggéey bi ngay def waaw parce que waxam bi may ànd ak moom baaba amul single baaba amul single mhm. Mhm. bi single bii may septième single boo xam ne waxam defal na ma ko sept single yoo xamante ne sénégalais yi fooyewuñu benn ah, te projet album la kon waxam gàcce ngaa la am ci moom donc lan mooy est-ce que kon da ñàkk da nga ñàkk communication yooyu itam parce que boo defee set single ba léegi loolu loolu mën na nekk loolu loolu nga wax mënu ma ko bañ mhm. parce que tamit wax nga dëgg bay saa nga def morceau promo bi ñu ci war a def doo ko def comme morceau bi ñu génne promo bi ñu ci taxaw di ko ci def par rapport a morceau merci merci yaa ngi dégg mhm. mais waxaab ci boppam dama ko amee jukkal waxaab artiste yi ko amee njukkal bari daa ngi dégg noo man man maa tax wa waxaab man maa tax mu def musique Mhm. xelal la koy doo ko wax. Ah. waaw man maa tax. waaw boobu rapport la de. mu def musique Abdou Aziz Ndiaye mais moo jàpp ci ko waxam indi ko ci man ni ko damaa bëgg nga jàppaleel ma sama rakk ji boobu studio amul dara amul waxaat bi def ak ay moyen di dem ak ay moyen bañ tey jii ñu investir studio ba ku ne di fa ñëw di enregistré te ñan naa yàlla lépp luy ñëw ak ku mën a ñëw di ci jàpp na fi fekk waxam ñu àndandoo ñoom ñaar defandoo ko mais mais mais Baba yow pro ci sa communication dañuy gis yow li ñu lay gis ci plateau télé bëriwul li ñu lay gis ci rajo yi bëriwul ban problème nga am ak animateurs yi la problème nga am ak ñi nga xam ne ñoo yor ñoo yor yenn parce que tamit sa son sax pour ko teg c'est tout à fait un problème lan la waaw non man am ak problème benn animateur animateur yëpp samay xarit lañu jàmm rek laa séq ak ñoom ak salaam. te xam naa mais est-ce que papa dina la arrivé nga génne comme ni nga génnee single bi. Mhm. Euh, euh, seeg si neex nga ne dama koy defaral plan de comme par exemple bu ma defee émission ak Bijou Ngoné bu ma ci paree damay def émission ak Richard bu ma ci paree damay def émission ak Omaro bu ma paree damay def émission ak Ali Mandione ainsi de suite ainsi de suite topp télé yi def def Pape Cheikh def ñu defal la plan de communication boo xamante ne dina tax opus bi uh-huh. def sa propre promotion Mm-hmm. est-ce que tey loolu dina la arrivé. waaw loolu tu ne nii ci feuille de route boobu ñu nekk nga wax nii ci lañ nekk. Mm-hmm. ndax incha allah rabi bu ñu jugee ci yow war nañ def ak alima yi waaw incha allah bu ñu fa jugee war nañ def adros ak bubs. Mm-hmm. war nañ defaat ak di ci kuul maanaam li nga wax nii ci registre boobu ñu ngi ci te lii nga wax nii mooy liggéey bi. soo génnee dara da ngay topp télé yi topp rajo yi communication bi di daal. ndax morceau bi bu mu génnee waxaat dafa woo animateur yi leer na big taf male ku ci nekk mu déglu loolu jox la kele nga yóbbu ñu commencé ko teg ba keroog bi may ñëw confrontation nekk invité surprise lu la bett la waaw te période boobu noonu moo tax dafa génn am deux jours ci planning boobu nag nga wax ci lañ nekk di liggéey bu baax a baax parce que tey leen bëgg bëgg nañ baax baaba génneti àdduna yépp bàyyi ci xel à part gaynde baaba fan lay jouer fu bokk waaw Baba fu muy jouer bari damay jouer mhm. five damay mhm. jouer rabin damay jouer gaynde foofu date yi na de ah ay five ak yooyu foofu date yi na de mais ñun amuñu problème mu date pour pour problème dem tëgg am date pour tëgg non amuñu problème mais five nag am na yeneen artistes yu fa nekk yoo xam ne baaba est-ce que pour nga ñëw jëkkati ay samedi wala vendredi wala mercredi ci yeneen ay five baara mu ndee géew na mais five bi ñu fay mujj pour nga xam ne ñun tënkuñu suñu bopp. Uh-huh. bi ñu fay mujj ak waa Jéeri Ngoone. Uh-huh. ñëpp gis nañ. Uh-huh. te Jéeri Ngoone nekkul ni dama nekk ci labelam dañuy soxla pour liggéey ñu woo ñu waxtaan ak waxaab ñu gérer ak ñoom five def ko gisee fermé te euh, five du c'est ñu gérer fa. gérer nañ fa kon amuñu problème mu tëgg Almadies. d'accord artistes yu bëri bu ñu tardé yegg ci benn niveau bi da nga dégg ñu naan non dañ ma jekku mystiquement dañ ma jàpp dañ ma def lii est-ce que loolu tamit jàppoon ne na la. non man aw ma problème waaye mystiquement parce parce que yàlla mi ngi may may sama baat maa ngi waay. Mm-hmm. yàlla mi ngi may may sama baat maa ngi waay. waaw. Mm-hmm. gëm ma ne problème mystique moom. aw ma problème ay waay problème mystique moom. Mm-hmm. état d'esprit rek. ñu ciy attardé wu looloo leen rey. Euh, euh, dafa am loo xamante ne Big Taf daf ko wax sànq parce que baaba bu deful genre live yu mel nii nit yi du ñu mën a xam exactement ndax baaba mi war nañ ko engagé yóbbu ko ci par exemple ci ci grand théâtre mhm. yóbbu war ko yóbbu Sorano promoteurs yi war a ñëw war la tëggal mhm. war a def li nga xamante ne moom mooy découverte bi sa public di am envers yow dëgg la pourquoi baaba bëgg yem rek juste ci boîte de nuit bisu baaba su yoon chaque semaine mu teg live am ci télévision mais ku nekk xam na ne musique bi dafa bëri clan dafa bëri par parlo clan commencé waat ngeen ci waxu clan dañuy waxtaan wax dëgg ca la ñii dañuy far fii ñuy far fii bu ñu ko tegee ci yoon dañuy dégg li ñu war a dégg man xam la ma tax gëmuma waxu clan baaba waaw euh, euh, man personnellement gëmuma ay waxu clan baaba non clan boo déggee ma ne la clan man gëmuma waxu clan xam nga lu tax kaay ma wax la yaa ngi da dugg fu am importance mhm. parce que dama ko dégg du benn yoon du ñaari yoon mhm. moo bi nga wax nii Euh, Abu Cubalo mos na ma ko wax man ma invité ko waaye gis nga gis gis nga li ma ci jële man lañ yàq Njaajaan Njaay te pourtant man Abu moom ko wax man ko ci tey bi je te fais un plateau. dëgg la waaye ma invité la émission ñu waxtaan. dëgg la boo xamul conception confrontation ñëw di xuloog man da ngay juum est-ce la euh, euh, tey biisu bu ñu nee biisu ñu ci bari jàpp ne biisu mi biisu Waly Seck la. Wally c'était la première fois mu ñëw confrontation mhm. bi ñuy def bi ñuy def débrief d'homme de pare après douze ans démision donc kon bu ngeen di wax ay farfarloo loolu lu ay clan loolu lu ma jaaxal la parce que confrontation amul artiste bu fi ñëwul defe naa man Bijou ngoone euh, euh, euh, bu Wally Seck li ma invité artiste suba teel moo ëpp ci confrontation que li ma indi artiste boo xamante ne farama ren la mhm. donc côté boobu peut-être am na exactement yow man xam lu ma bëgg nga xam ko. Hmm. yow du question yow sa concept émission ñëpp xam nañ yaa ngi invité ku nekk mais waxtaan wax dëgg ca la. day am man bu bës bi baree sax damay dem seeti ñi nga xam ne wayetuñu. exactement ñoom Yves laay invité ñoom Yves Niang. waaw waaw waaw dama lay wax. dëgg waaw man damay dem seeti ñoom ñoom ñoom kii nu mu tuddati waay. ñoom Abou Raas ñoom Alioune Kassé. Alioune Kassé waaw man ñu waaw waaw dama lay wax. da dama neex. dëgg la ñooñu laay jëli teg fii ñu setaan leen ñu dajji ma ndànk ku ne dem. dëgg la mais yéen ñi nga xamante ne yéen yéen a def seen xel ni ka euh, euh, ñii kat dañoo am ay clan yéen yéen ay bloc blocus bi ci si si yéen la artistes yi. Mm-hmm. artiste bu naan du ma dem ci kii wala du ma dem ci kii wala du ma dem ci kii wala kii animateur kii parce que yéen à chaque fois rek bu ñu waxee ngeen jiiñ ko animateur yi. wala eh, ngeen jiiñ ko ñi nga xam ne ñoom ñooy nekk nag ma nangu ñuy xas animateur yi. bisou parce que yéen waykat yi yéen a sàkkal seen bopp ay plan parce que man baaba bu ma soxlaa daf may fay parce que waali bu ma soxlaa daf may fay. dëgg la Pape Diouf fu ma soxlaa daf may fay. dëgg la yaa ngi dégg. Sidi ainsi de suite keneen ak keneen ainsi suite dama ne bu ñëpp soxlaa biisu biisoo ngi fi waaye waali dafa fekk ne mooy sama deret bu soxlaa ñëpp dañuy ñàkk noonu la demee. dëgg la mais du caagi ni ay clan daf ci am parce que clan boobu bu mu la tax bañ a dem émission xëcca wala bu mu la tax a bañ a dem émission bi nga xamante ne jàpp nañ ne traditionnel la. waaw mais doguma la. man je libre pour tout le monde. wax naa leen man aw mag benn problème benn animateur wala animatrice ku sentir baaba boo ko woowee invité ko day ñëw mais ci côté promotion ngay wax te yow émission bi mu ko proposé vite fait dama ne mën na nekk. mais baaba animateur bi sa yëf bu doxul animateur bi du sa war a teg loolu. dëgg la nañ waxtaan. dëgg la soo leen indilul produit bu normal. Mhm. animateur bi du ko sawar a teg. dëgg la Big euh, euh, je pense que je parle euh, sous ton contrôle. Mhm. tey ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñooy animé. defe naa ne baaw bu leen joxul loo xamante ne tegaabul na ah wax dëgg yàlla. am nañ ci am nañ ci droit. mais baaw yow est-ce que tayaloo. tayal comme nan <laughs> ci carrière am. sa carrière oui est-ce que tayaloo dem envers gars yi génn ay affaire dox ko. comme ni ko ci ni ci gars yi di sonn est-ce que nekkul loolu mooy problème bi gëw ma ko de non non loolu du problème bi ah. parce que nit moom boo defee dara tëju studio hmm. liggéey hmm. di fexe def le tout pour nit ñi consommer parce que baaba yow li affaire baa ngi fi quoi talent baa ngi fi musiciens yi la topp ñëpp ay ay grands musiciens lañ dëgg la li ñu fi joué fii macha allah ay mag ñoo ko war a joué mais dégg nga mënuma comprendre jusqu'à présent gaynde bi sax war a nga ko dépasser dëgg la donc problème bi am na maanaam ci yuq bi am na foo foo foo ñu waxul yow. léegi ruq bi nañ ko jeex rek ba gis. <laughs> waaw mais foofu la wax. <laughs> kon ruq bi dañ ko jeex. ba gis yuq bi nga ñu war a wax lan mooy problème bi lan. <laughs> liñ naan luy problème bi parce que ñun bëgg nañoo xam en fait. dëgg la. parce que baaba sa communication des na quoi des na waxaab mi ngi def lépp lu mën mais sa communication des na donc am na leneen loo xam ne moom la moom la moom nga ñu war a demee noonu parce que du clan quoi que clan yi. Ah ah. non ak nu mënti demee da ngay woy artiste day woy bu bu bu ñëwee ne day G5 ngay G5 da ngay ràcc jëmale sa kanam quoi qu'on puisse donc am na lan la problème bi. dëgg la lan la. waa problème bi mooy na nee nga nañ ko jeex nañ ko jeex boo wër ko rek. non yow yaa ñuy wax fi mu ne. nga ni ko yow yaa ñuy wax fi yaa ñuy wax mais man gisuma problème parce que liggéey bi ma war a def maa ngi koy def xëy na dañ gën a waxtaan ak ki nga xam ne mooy waxaab. ñu yokk tere dolli ñeex gën a ibbi affaire yi. gën ko gën a promouvoir affaire yi gën a mën a avancer incha allah rabbi xëy na yéen ñëpp nag yéen a ngeen di waxee ak yëg-yëg. non non parce que yëg-yëg la ñuy waxee. parce que gis nañ li nga amal depuis sànq mu ngi xam nga mise à part Nouroudine mi ngi koy wax léegi nii Moustapha. <laughs> Nouroudine maa ngi leen nuyu ah euh, technicien son ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu waa waa sas ñoom ñëpp gars yi technicien yëpp ah euh, ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar dëgg la mise à part bi ma doon Euh, ak ça rien à ak. non yow yow yow yow yow yow yow problème foofu noonu bu ci gaaw yow technicien nga biir Faramareen. non non c'est-à-dire waxi famille cest à bu ñu wax far yow dangay ngay liggéey. non non non moom je le fais pour pour voilà je le fais pour artiste mhm. euh, mais Baba kañ nga war a à quand Baba Sorano wala Grand Théâtre kañ ci salle yu waaw ndax euh, Sorano bi kale woon nañ date bi. <laughs> mais ku nekk gis na jamono bi dëkk bi ni mu demee woon mhm. ñu arrêté woon affaire yëpp ak manifestation yi moom moo tax sax bi manifestation bi amee ci lañ profité ànd ak groupe bi liggéey single bii di sectionnaire parce que sectionnaire projet album la projet album boo xam ni tey jii dañ ko war a def ay spectacle yu mag yaa ngi dégg bisu mais nag fi jamono bi tolloon moom moo taxoon lu baree baree bari ñu estan bàyyi ko mais waxaab mi ngi kale ay date yu mag sénégalais yi ak euh, partout dans le monde ñu gën a bàyyi xel baaba gën koo déglu gën koo découvrir parce que ñun amuñu leen musique ibil nañ tamit ñëpp suñuy bunt mhm. ku ci bëgg a jàpp na jàpp ci. site internet yi déjà après émission yi ñu bëri dañ la benn Fifi doo doomu ndey Pawlish mii. waaw ah, bien sûr na bu jàppal date mu invité la. waaw déjà jawul sax jàpp na buñ paree sa manaat jotaa ko jox ne mu contact non non wax nga fi ci wax boo xamante ne defe naa ne réseaux sociaux yi ñoom fi fi taaw ak ñoom ñeneen ñi ci des ñëpp am nañ ci lu ñu lu ñu lu ñu rebondir parce que da nga ne booy yëpp yaa leen di ko di c'est pas am na noo ko waxee te xam naa ne yooyu yëpp dina la confrontation yëpp yaa leen di reculer amul tànk ginaaw tànk kanam yaa ko wax waaw waaw parce que yaa ndax yaa ko léegi nag après yooyu ñu polémique boobu dama koy bàyyi ak ñoom fi taaw ak ay waa sans limite sans limite ak yooyu ñoom ñëpp amul benn loolu ñoom ko lijjanti mais tey baaba euh, euh, euh, da nga ñuy mayaat beneen somb laata ñuy ñëwaat léegi waaw incha allah il faut nga laal ñaar xam nga baar temps bi dafa jeex ci moom dafa war a dem ñun ñu eggali ak nga xamante ne moom mooy li kon nañ nañ nañ jé ceeg neex rek baaba à ce point boîte bi jaral na la loolu <laughs> nga sacrifier plateau bi ni yow dama bëgg boo jógee fii nga ñëw fekk ma gaynde waaw waaw d'accord kii nag day suma xarit mhm. di suma partenaire di suma lépp wala ñu def benn morceau bu tudd jigéen ba pare doo ko def sexe neex ay acca wan loolu dama gis tës e day xadisatu yonent bi ay ci ñu dem

nañ def ah? bii nag bisu ki ma ci njëkk a way moo caam giwal sa góor bisu ngoone li ma la wax ci way wii noonu nga def ci Sénégal mënoon nañ di way sa maam di way sa yaay mais li nga wone ak fi nga xuus ba ak fi nga agsi moo waral ñu way la way wooy ak sama jigéen sama xarit Mamita Kara borom Espagne ñëw na Sénégal ndax way wi asuñ jam yegg si li ñëwal gone gi ndigal gone gi kon ñëwal gone gi maa bëgg xale bu bëri fi nekk ma mooy sa baat sama xarit si si jàq si si ma dameel woo Pawlish Pawlish adduna yenn saa yi dangay tollu jamono boo xamante bi bi dangay nekk ci guddi te doo xam ni ci guddi nga nekk yaayu lion nga am jàmbaar léegi léegi jàmbaar jigéenu big taf jooni jooni jàmbaare war na maye bisu xam na ni ci àdduna bi ñu nekk nii ñaari loxoy takk tubéy ñaari loxoy takk sëy góor góor góor loo jox la su wërsëg bisu sisi mata merci beaucoup merci la prochaine ok. jërëjëf jërëjëf. sànni. Pali su wala ñun ñëpp da ngaa njaboot nag. Ouzin day dugg dinaa ko dugal damay xaar pare ak baaba bu eh? may libéré Baba daal di ñëw ci Ouzin interview dama bëgg xam ci tool papa jàmbur Ouzin la moo tax mu bëgg ci tàkkaale te yoonam nekku ci li muy wax yëpp version yi xamu ci dara chaque jour Ouzin jël programme am site bu ñëw rek mu dem site ba ca des te site yëpp lay fayee ko xaalis xam nga ne Ouzin maa ngi ñëw baaba eh, eh, eh, kontaan nañ ci sa teewaay merci beaucoup te comme ni ma la ko waxee rek nee naa la single bi moom ñu ñëpp ci jàpp rek incha allah waaw dafa tombé rek mu nekk suñu single waaye yow sëñ bi ñëpp ci war a jàpp dëgg boobaak léegi wax dëgg yàlla xam defe na sax ñuy déggante parce que man moom xam nga rek. dëgg la situation yi ni mu compliqué. mais nag jàppal ni télé bi moom sa télé la. incha allah waaw yow émission boo jàpp ni rek. lor nga ko ba gis ko war nga ne fii war nga fee mën a jaar ci yow la des. incha allah Abdou Aziz wala. amul benn waaw Abdou Aziz ci kër gi. Mhm. Bijou ngi ci kër gi. dëgg la waaw te Big Tafi ngi ci kër gi defe naa ne yow kër gi. dëgg la cër yi ngi ci am. dëgg la bari na. donc mhm. euh, euh, dañ lay ñaanal rek xéwal. Mhm. ah ak euh, man moom xam nga ne single bi faaw ma ñëw jàkkaarloo yow ci sëngal bi nag. waaw loolu am na. ah sëngal bi noom force moom jàkkaarloo ab dëgg la waaw jàkkaarloo Aziz mënut a ñàkk. waaw xam nga Abdou Aziz du maay caaxaan. déedéet incha allah non non non defe naa clip bi kañ la. clip bi après soirée bi rek ci la ñuy taxaw. ci la ñuy taxaw waaw waaw clip bi sama clip. jeex na ko waaw waaw sama clip kon jeex te loolu xam nga maa koy clip yekk ko ci ñànk tang bi pare di ko teg waaw waaw waaw. sexe si neex c'est très important. dëgg la merci la. clip bi daal jàppal ni daal yow soo paree rek nee ma pare naa ci clip bi. bu ñu ah, paree euh, suba euh. incha allah rabbi ci clip bi lañuy ñuy focus. soo su ngeen. suñu paree tey gaynde waaw ci clip bi la ñuy focus. jeex ayca ñun ñëw rek la ñuy déglu saa yi soo paree rek ñu daal di koy doxal. taxaw ko euh, euh, def ci lépp loo xamante ne rek moom la ñu warloo ak yow. ndax wax dëgg yàlla euh, kontaan nañ bu baax a baax a baax ci single bi te Abdou Aziz kontaan nañ ci baaba dañ lay bàyyi nga tàggatoog sénégalais yi. tàggatoog téléspectateurs yi parce que da war a dem jouer ji léegi. dëgg la ñu eggale ak ki nga xamante ne moom mooy police. waa maa ngi profité di kontaan ci public bi fekk si ma ñu nekk ay kilifa nekk ay nit yoo xam ni ah dañoo wane seen bopp ci Pikine bi ñu dëkk yaakaar naa ni yaa ngi dégg turam bu baax bisu mu nekk jigéen ju mën góor nekk jàmbaar laay law ba mii nekk nit ku am jom mhm. suñu bopp yi nii mu mel ni yëpp moom moo koy def yaa ngi dégg fi ma xam mu nekk nit koo xam ni dafa commencé ci zéro ba fii mu agsi Modou Café VIP ma lay nekk jàmbaar di mbokkum ndeyum boo ñaa nekk nit koo xam ne tamit liggéey rek la xam tiis iPhone moom mi nga xam ne tey jii téléphone yu baax yi ak téléphone marque yi mhm. moom mooy fexe ba ñu am ko waaw waaw waaw xam nga mënut a ñàkk faaw waaw faaw ñu nuyuwaale la te xam nga baara suñu suñu xarit la yaa ngi dégg ma Tidiane ah, mi ngi bi waaw borom ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax baax te Khadija mi tamit bëgg naa ngeen préparé yéen daan ngeen jàkkaarloo Khadija Samake Khadija Samake waaw mi ngi ak ah. diplôme moom waaw ah. incha allah rabbi waaw ah moom mooy jaay ñoom jaay wala ñoom ñooy jaay moom mooy. moom moom bi mu commencé jaay ñuy jaay. <laughs> ah. waaw bisu. xadi ah. est-ce que doo ko wuy ma dama bëgg nga boole ko ci li nga togg bi. non non non togg bi jeex jàll na affiche yi jëm na. kon waajal affiche yi jàll na. waaye ko jël plateau beneen. yow ci jaaykatu diwi nga. yow man maa la woo. waaw lu la tere woon ñëw yëpp. xanaa xamoo confrontation bi woote bi benn la. Abdoulaye mooy ménagère bu waxee nga ragaloon a ñëw. Mhm. ngi dégg bisu ah bisu. Abdoulaye nga ko lu baax. bisu ma tàggatoo rek parce que damay joué ji. demal euh, maa ngi gërëm équipe bu baaba ci laa bokk bi yëpp ah muy fan club bi muy staff bi. Mhm. su ma limee damay juum suma ma limee damay juum te xel matul Youssou Ndiaye mii toog tamit nekk suma xarit. teewal fi ñoom sëñ Mbàkke ak gaa yëpp maa ngi gërëm estafu baaba ci laa bokk su ma limee damay juum ndax nit ku nekk mën ngaa lim say nit am koo fàtte papa jaabi sama xarit moom it mi ngi nekk ba Paris am bagage yu bari yu ma euh, jox pour préparation vidéo bi ak yenn émission bi waaw bëgg nañ ci ñëpp nag bëgg nañ ci suñuy waajur bëgg nañ ci suñuy fans bëgg nañ ci suñuy dëkkandoo bëgg nañ ci ñoo xam ne ñu ngi toogal ñu si daan émission bi nañu ñëpp fekk gaynde incha allah rabbi Paulis maa lay invité gaynde amal ma téléphone di gërëm waa Rési ah. waaw kontaan jox ma sama parce que xam nga nag. émission rajo sama xarit sama partenaire. émission bi faaw ñuy wéef. ayca du dëgg. waaw Abdou Aziz wéef mun tey ñàkk. Ah. waaw man léegi dootuma doxantoo xaalis. Euh, damay wéef. Ah? waaw waaw damay wéef sa code yow rek yaa ko man rek maa xam sama code. doo ko foontoo. du ma ko foontoo. man léegi dootuma battre sur scène damay. wave. parce que am na ñoo xam ne dañuy dem dañuy dem eh, wave daal moo gën léegi. baat waaw baaba wave rek. ma es na kan ne sa code waaye heureusement que yow maa ngi sa numéro yaa ngi ci répertoire bi. defal la ne waaw waaw wave rek. Ah, Abdou Aziz. mooy njariñ de. ci yow. Ah. wave rek. kon jëloon naa nag sa 10 000 jox ko sa kii bi waaye jàppal ni. bu ma ko remplacer rek waa di ko wave. wave wave wave rek wave rek. Euh, euh, euh, ñu continuer defe naa ne sama téléphone baa ngi sonné nu ne xaw ma nag euh, Karajo may ñu dugal brèche bi rek may ma affiche yi nga xamante ne euh, euh, ci laay ñëw léegi léegi léegi. Karajo njëkkal ci vente privée bi nga Ouzin Ouzin maa ngi ñëw léegi jël la Ouzin bul coupé ñu ngi ñëw léegi jël la wala wala wala waxal ba pare après Karajo le temps Karajo di préparer affiche Ouzin ayca yow la ñuy déglu. asalaamaaleykum. Ouzin réfléchir bu baax ci li ngay wax nga balaa ngay duggu agent bi Ngouda maa ngi dëgg la témoignage la wax nga dëgg ndeysaan sa xarit la. xam nga naan fay doom. dëgg la. waaw waaw waaw xelal xaaral ñu dugal la ci régie parce que appel bi fii du leer bàyyil ñu dugal la ci régie bi Karajo dina la dugal ci régie bi ah waaw ci lay dee parce que nee na moom Pawlish Mbaye fu mu pikiroo mu naan fay doom dafa triste tey ndax jooy te sa déjà Pawlish xam nga kenn xamee ma ko image bi day xaw a compliqué bu ko nit ñi di gis ci ci ci visage bi euh, euh, Griff Diouf Griff Sougou astafurlah ah Griff ndeysaan Pawlish nag wax dëgg yàlla ndekete réew mi yow ñëpp la bëgg waaw yow Pawlish nag kaay ma wax la boo bëggee émission bi yegg uh-huh. dama bëgg nga arrêté sa jooy yi Mhm. nga jàkkaarloog man mun maa fexe ba si gi xool. Mhm. nekk te mhm. xaw ma woon ni man mii bokk nga ci ñu ma bëgg. man Serigne Saliou képp laa bëgg. ndekete yow mi kat bëgg naa ko nit. <laughs> ayca Griff ñu ngi lay déglu. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa eh, eh, maa ngi nuyu maa ngi nuyu ñu toog si plateau bi yëpp ku nekk sa tur sa sant. ñu ngi lay fay. di nuyu di nuyu big big taf moomu toog di nuyu grand assise di doomu Pikine di nuyu euh, suñu centre boobu Baba di nuyu tamit euh, sama frère euh, Pawlish Mbaye maa ngi nuyu bu baax. Mhm. di la ma wax rek nee na nit moom soo soo amee sa doo ko wax lenn lu lu dëgg. Mhm. parce que àdduna ba muy métti démb gisul kenn ba muy su neexee tamit. nit ki kenn dinaa la bàyyil say waajur ndax euh, ku nekk rek am na loo daj si say waajur. Mhm. ndax ñu bari am na ñoo xam ne seen waajur gis ñu seen waajur trente ans cinquante ans teewul ñu dem di wër seen waajur seen yaag mhm. te Sénégal moo nekk dëkk boo xamante ne ba muy métti doo gis kenn soo amee ngay gis ñëpp ñu ñu di la jaay di la wax loo xam ne nga sonal lool ndax bu bu fexe fexe fexe ba am si papam dëgg parce que papa ma ko indi si àdduna. Pawlish nit ku baax la ndax moom xam na ne ba ba ba ma koy xam si situation yi métti laa ko xamee ba ba ma koy jël di ko ñuy ànd si moto du ko fekk ne ko présenté Wally Seck su ma ko bon la kon du ma présenté ma ko ma ne ko jàppal kii ndax nit nit tamit soo nekkee si soo bis dafa garaaw soo bis dañ euh, doo xam ku la bëgg doo xam ku la bañ. dëgg la te àdduna àdduna nekk àdduna àdduna nekk na àdduna boo xamante ne man de du ma ne kenn. bàyyil sa waajur wala naan la sa waajur dalaa bandoone wala faalalo woon wala nangam nangam ndax tey munoo am wax wax wax ba am dëgg sa waajur ndax sa ta waajur tey moo la indi gane si àdduna ba nga am lii nga am ba nga mel lii nga mel. na ko léegi xam waaw nit nit ki nag fañ lay nawee si ëllëg ak lu mënti doon mooy say waajur ndax ña ngay àndal ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp dañoo jàpp seeni waajur te war ngaa bokk si doom yi nga xamante ne tey da nga jàpp sa bopp parce que yàlla may na la nit ñi bëgg nit ñi bëgg nañ la nit ñi am na fu ñu la teg nit ñi am na fu ñu jox ndax soo xoolee àdduna su neexee ñëpp dañ leen gis am na ñoo xam ne nag dina neex ñi fàtt seen nitu démb fàtt na démb kat ba muy metti am na ñoo xam ne jege woon nañ ma wala ñu ngi sama wet waaye tey su metti su neexee tamit ñëpp ngay gis ñii di ñii di la jay dinaa sa papa lii ak sa papa laa ak laa xam nga te sama rakk nga te li ma lay ñaan si àdduna mooy lépp loo mën a am si àdduna ak lépp lu la say mbokk def waxuma mbokk yu saytaane waxuma mbokk yi saytaane yi de ndax mënoo am lu gën yenn sa sa ñenn ñi ñenn ñi sa mbokk yi ndax tey di fekk ñoo xam ne sa say mbokk yoo xam ne dañaa bañ a bañ a bañ ah nga jël leen rusloo leen ndax man tey xool naa samay mbokk ñu ma gën a contrôle waaye damaa jël jàppale leen tey kenn du taxaw di wax si man loo xamante ne naka na naka sulu noonu ni da ngay xool ñi nga xamante ne tey ñii say noonu lañ wala say ëllëg ñoo la gën a contre nga jël leen taxaw gauche droite ndax xale nga demagoo fenn xam nga te soo lu si li ngay def yàlla dina la dimbali ndax tooñoo kenn yaa ngi bëggal sénégalais yi yaa ngi jàppale sénégalais yi xam nga yaa ngi yaa ngi yegg fi nga bëgg a yegg xam nga nit nag su bëggee yegg fi mu bëgg a yegg ak lépp lu la sa waajur def ak lépp lu la sa waajur toroxa man mii li ma teg si àdduna su ma la ko doon wax tey doon fi ngay toog di jooy bay bëgg a dee waaye tey laa gën a mën a teral samay waajur tey laa leen gën a mën a jàppale te bul déglu benn naa fekk wala benn saytaane bu lay bu lay geeral sa kaw waajur wala bu lay xeexal sa kaw waajur wala nangam nangam parce que Séné sénégalais du wax kenn dëgg lu dul di la jey ba nga ne kënd ñu koy suul la c'est que nit ñi la ñuy suul si armeer yi suul leen a bëri génn di leen jëw asamaan war nga toog nga xoolaat sa bopp nga yëdaat sa bopp ndax xale nga xam nga si xol bu rafet laa la xamee man Griff si xol bu rafet laa la xamee ba ma lay xam yoroo fukki dërëm. dama la xam yoroo fukki dërëm man soo ma rombee sax ni ma waree nuyoo sa dooma ko nuyoo fi ma war a teg sa dooma fa teg mais teewul damay xam ne xale nga xamoo xam nga teewul musuma laa fasal kanam musu barki démb laa la fekk si Ndiaye Gaye na Ndiaye poña la na eh, dama nga fay dama nga fay yàppee ma lekk xam nga yow laa ko def waaye li ma lay conseil mooy doomu pikin nga ñoom Aziz ñoo ñu nga nekkal tamit doomu pikin nga kenn man bëgguma xam loo daj sa àdduna yaag say waajur waaye lépp loo am rek bokkul say waajur waaw ndax biisu mu di wax ak yow bàyyiwul ay mbokkam bàyyiwul ay waajuram tey su la jëlee tamit doomoo la tey bëgg ëllëg nga yegg sa avenir moo tax mooy wax maa ngi lay ziar nag di la di la di la ñaanal nga bañ a nga bañ a rëy nga bañ a euh, topp kenn ku lay wax nga dem jégalu say waajur yal na la yàlla defal jàmm xale nga biisu maa ngi kontaan si émission bi di ñaanal ñëpp yal na yàlla guddal seen fan yal na la yàlla may jàmm. kontaan naa jërëjëf jërëjëf. ayca c'est que bisu. mën euh, naa wax benn parole rek ah. mm-hmm. parce que moom mi di woo naa fekk la. ah moom mi di wax nii téléphone. naa fekk man tamit nga wax ma ni tey suba nga wax ma leneen. ah Karaajo dafa loo doon waxaat léegi. yaa ma dégg. yow rek dégg. mënu maa mënoo maa mënoo maa tàgg tey wax man sa papa lii ak lii tey nga génn di émission naan ma dama baalu sa papa. Ah waaw te moom li muy wax amul. moo moo présenté Wally amul ba ma man Wally ba ma koy xam maa ngi xamante moom ci makkan may watu makkan waaw que ñoom dafa bëri naa fekk Sénégal moom mi mënu maa conseillé li ma moom mënu maa conseillé li may def ci sama kenn mënu maa conseillé li may def sama papa sama papa pour pour ma seet ko man la mhm. du kenn may mën a conseillé ne demal def sa papa parce que man sa papa su may su may wax ci may dem ci moom télé du top topp caméra du topp dara du ma topp maa ko lijjanti sama bopp maa ngi dem ak sa bopp bu dee nangu na moom sama papa na ne maay maay papaay Pawlish loolu sama mbégte la ñoom ñi kenn duma ci taxaw naa ma demal baalu sa papa demal sa papa. Griff dafa dafa dafa dafa dafa dafa wax mais c'est normal. moo ko euh, euh, xam nga. parce que ñoom ñoom ñu ngi denc seen papa. télé moom da ngay tëddee jaaxaanaay rek li ñu naan suuf souffrir pour écouter ñëpp dañuy sama genre gi dañuy souffrir pour écouter ak keneen ko léeg-léeg nga dajanteel wala nga jàkkaarloo koo xamante ne en normal ma ne xam nga réew mi nag amul kubéer waaw waaw du bokk sax fi ngeen di. man ñoom du ngeen daje sax. en temps normal waaw barke Cheikhul Khadim du ngeen daje sax waaye mais nag euh, euh, oh. c' parce que on est là pour prendre xale nga comme ni mu ko waxee il faut nga déglu avis ñëpp parce que yow yaa toll noonu boo doon nit ki nga xamante ne wax dëgg yàlla kenn xamu ko kenn du am benn kàddu bu muy yëkkati di ko jëmale ci yow mais benn avis laa bëgg li li debal lii mhm. parce que da nga koy interroger démb waaw waaw loolu loolu loolu loolu benn eh, man nga xamante ne wax dëgg yàlla euh, ba tey jàpp naa ne Euh, kersa bi nga am sama diggante ak yow. tax na toogaguñu ba wax lu lu tënku. amul mbindeef lépp dama la ciy tooñ rek. ñuy jàll ci leneen amul mbindeef yaayam sama papa ay yaxam la ma laaj. donc euh, euh, defe naa ni yow ku may xool ci yow dina ma mere hmm. wax na ko de dëgg la man sama àddina sama mag bu góor bi ñu naan bi bi jege na moom laa gën a bëgg sama àddina waaw sama mag la ñoo bokk ndey ak baay waaye yàlla dafa dogal dama ko bëgg. nee naa ko yow bu may xool ci yow euh, euh, wax dëgg yàlla euh, nu nu sama borom kër war a mel sax billaay wallaay taalaay du ma bëgg kenn parce que ni nga mel la kenn melul donc wax dëgg yàlla dama lay wax wax na la ko ku la bàyyiloo say mbokk defe naa ne amu fi sa entourage waaw yow tabaski bu jot yaay gàddu yére <laughs> sa yére yaay yóbbu ko maak yow ñooy ànd nga ndugg sable pomme te waxuma sax ay fête bu jot nag laa wax yooyu yëpp sax ay détails la déjà gone goo fi gis rek dimbali sama jur lay njëkk a wax ci micro ak tabaxal sama yaay yow tabaxal nga sa yaay wàcc nga. yow da ngaa wàcc dem bay barki Cheikhul Khadim man waxlawuma pour kenn te duma wax pour kenn. Mhm. c'est pas pour rien nag plateau bi tey baaba lañu waroon invité. dafa tomb situation yi bës bi am ak yii am nga war a wax ma jàpp ni fii nga war a mën a gën a sentiru à pour wax ci. que euh, ngay dem ci beneen plateau muy jur ay polémique waaye ñun wax dëgg yàlla du ñu yor xale bu ñàkk fayda du ñu yor ku ñàkk fayda te du ñu dox dox bu ñaaw euh, euh, suñu sang bu tedd bi nag dafa doon wax naan ci àdduna maslaak ku la jikkoom soof dafa baax. ku soof. waaw di maslaak moom dafa baax. maslaak ku la jikkoom soof police loolu dafa baax. te loolu dafa war a bokk ci non non non même bu ñu soofee tamit yàlla moo bind noonu yàlla moo bind te yemalewul kenn ku ci nekk dañu war a déglu sa avis Grif magam la am na droit wax ko dëgg jàpp na ne dafa war a dugg pour wax ko man message dama sa Grif am na droit dugg ci émission bi donc loolu. Euh, euh, euh, gaaw ma ni sax mu tontoo ci noonu tontu xol jaru ko. mais ñoom amuñu leen lu may conseil sama vie ak sama papa. parce ñoom ñëpp ñu ngi denc seen papa. waaw waaw am na ñoo xam ne ñu ngi wax conseil bu baax ak conseil bu bon conseil bi mu la wax ci tënk boo ko dégloo ak xol. Euh, day xaw a métti ak xel rek. li muy wax ak li mu wax bokkul li mu wax dém ak li mu wax li mu wax tey bokkul. Uh-huh. waaw parce que te man mënu ma tricher man mënu ma mënu ma tricher lenn la nga laay ñaan yàlla. Euh, Karajo euh, maa ngi lay yónnee numéro Ousin dafa bëgg dugg. Ah, dimbali ko mu dugg rek xam nga moom. ñu ñëw ci premier parce que temps bi tamit jeex na li ñu dese bariwul il faut ñu tënk première édition foire afro diaspora à la place Langley incha allah le 29 euh, 30 juillet 2023 thème bi di multiculturalisme ah fële ca Canada ñu ànd ci ak Abano Stress ànd ci ak Ndioletal ànd ci ak Vienna incha allah euh, Kim Power ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ndax ñoom ñooy def li nga xamante ne moom mooy vente privée bi fële ca Canada ah di leen jaajëfal bu baax a baax a baax a baax Karajo bu fekkee beneen affiche bi yem na rek ñu daal di ci jublu ci vente privée bi nga xamante ne Euh, Dabay euh, Evans mi ngi koy waajal incha allah foire hmm? Dabay Evans euh, vous présente sa deuxième édition ma Jaay la bi muy amal fi nga xamante ne moom mooy foire au CICES foire de Dakar pavillon Sénégal ah spécial sargal Soxna Bali taxa ñu jëm ci temu mu màggal gi nag ah muy le 4 5 6 août 2023 incha allah jël leen numéro téléphone bi rek ngeen woote ah daal di jël seen stand. ndax yow mii war ngaa dem jël sa stand foofu nga jaay ñoo xam produit ngay jaay ndax da ngaa yor diplôme Khadija sama kër jamal nga jël stand foofu parce que rendez-vous la boo xamante ne xale yi bëgg lu baax yëpp fa la ñuy daje pour jënd waaw foofu kii jaay war na faa jëm jënd stand toog wane li nga xamante ne moom lay jaay nga wane sa diplôme 4 5 6 août incha au CICES de Dakar pavillon Sénégal ah euh, di gone gu am jom bu am personnalité xam bu baax a baax baax li mu bëgg di ko def muy dabaay bëgg liggéey ah euh, euh, chéri Arma Ndiaye ñu koy jaajëfal bu baax a baax a baax a baax Dabaye Evans ci loolu nga xamante ne moom la def sargal soxna mun Muntaxa suñu yaay bu bu tedd boobu ayca Karajo defe naa ni ñaari affiche yi kese ak le 15 incha allah calebasse de l'excellence ah, ñu koy waajal fële ca man ànd ko ak Titi bokk na aussi ci nga xamante ne ñoom ñooy waa Wally Ballago sekk ak euh, raxas doom de Paris bi euh, fële ca soraano aussi le juillet ñu leen di euh, jaajëfal ñoom bu baax waa ma nga noonu ah mi ngi noonu Mouhamadou Moustapha waa Eben Prod ñoom ñoo def Wally ko sekk raxas doom de Paris bi ah incha allah ci Sorano le 15 juillet woote nit ngeen dem jënd seen ay ticket entrée 10 000 francs la ah VIP bi 20 000 la foog naa am na place 30 000 aussi di leen jaajëfal bu baax a baax a baax a baax. Euh, damay ñëwaat ci sujet bi police ban problème nga am ak euh, li nga xamante ne moom la la moom la la Cheikh Mbacké wax. et du Cheikh Mbacké kese gis naa ci ay sorties Adamo gis naa ay sorties Chocono stress donc. pourquoi mais ñëpp def nañ ci sortie comme ñëpp nañu defee sortie. waaw mais kii Adamo xam nga nit da nga koy jàpp ci ay. ci Cheikh Mbacké d'abord bi nga a koy jàpp ay ci ay ci ay moments yu yu difficile. te Adamo yéen mos leen jubóo mu taxaw mu taxawaay ma taxawaay bu rafet. Mm-hmm. taxawaay boo xam ne taxawaay xarit la te xarit noonu lay ànd ak nitam. Mm. la te Adama mu ngi France. maa ngi Sénégal soxo no stress kii nu sax kii nu sax soxo kii keneen ki nu mu tudd ne Espagne. Baara dama ne Espagne déedéet kii. soxla soxo no stress. taxawaay nam taxawaay. Pambaay taxawaay Pambaay taxawaay ku nekk ak affaire papa dafa dafa dafa sensible. Mm. nit bu ciy wax na ci xam li mu ciy wax lan la. Mm. ñoom ñëpp ci naa seen témoin ñëpp dañ ci wax lu rafet Pambaay soo ko Adamo ñoom ñëpp dama leen naw ci ci ci ay détails yi ñu mais man nag réaction wu euh, euh, Cheikh euh, waaw man moo moo ma xaw a touché si Cheikh Ahmed Cissé Ahmed wax na ci lu rafet réaction am wax lu xamante ne tëkkante woon ngeen ba egg si fenn fii wax na ci lu rafet te da cee wax lu honnête wax na ci lu mm-hmm. rafet mm-hmm. amaanat dama wax fin bi nee na ma yàlla dafa dane Pawlish atamam fu nu jaar bëgguma ko bëgguma li loolu la wax te li mu wax c'est normal nit ku ne boo amee mu jaar bëggante mënut am mais wax na ju rafet. Ah dafa wax dëgg dafa wax dëgg moo tax ma kontaan ci li mu wax. xaw ma ci benn lu ma ci met wax dëgg. mais lenn seen dëgg yëpp neexuma benn moo ma marqué. mooy koo xam ne damaa dëkk ak moom nekk ak moom xam ma xam sama biir xam sama te amaana tey bu génne woon yeneen yoo xam ne xam ne ko ci man sama àdduna yàqu heureusement ba lu baax la xam ci man parce que liñ seq mooy kaf ak taraanga. di ko waari jariñ man loolu laa koy jariñ seede yàlla muy mbaax ak yërmande gi ma am ci moom muy Cheikh Mbacke mu dëkk Pikine ma dëkk bu doon wax ci man lu bon daa taxaw xaaj bu ko xamee daa war taxaw ci digg bi ne loolu amul ci paw Pawlish parce que xamante nañ xamante nañ bu ñoo doon nekk 24 heures dina barke Seydunaa Muhammad billaahi wallaahi wër na alquraanu karim mais ànd nawle lañ war a àndee Cheikh Mbacke lii lii du mbiram xamul ci man dara fi nag man amul amul lu xamul ci man dara li li daw ci réseaux sociaux daf may na ne xaw ma gisee ay sortie ba ma gisee ay sortie damaa reetaan xamul ci man dara amul laa gis mais ma dafa ñaaw ci ñaar ñuy ànd barke alxuraanu karim billaay woo du ma dem fenn ma suul sama ndey te woo ma ko ne ko demal jël fee dara naa ko yollee ko nga dem fële ba ne ginnaaw solo tawa ci def naa ko loolu mais àdduna amul solo yaa ma wax mu laa kii këram laa ko fee ne ko ngir yàlla dimbali ma ngir jëm Rasulullah nga yóbbu Cheikh Mbacke tukki looloo gën a ndaw damaa moom waali man moom ak waali dem euh, dem tribunal Guédiawaye waaye taxaw may oto gaari sama oto Cheikh Mbacke dugg ci waali ma woo ma woo taxaw sama ma ko doo ko nga may ko oto waali ne ma may ko oto maa nag sama xarit ne ko Cheikh Mbacke ngir yàlla lënd yeewul de wuti permis ndax nga ma oto xoolal nit bu lay jariñee loolu ngay ngay génn sorti di wax sama papa ay moom lu xam ci man lan xam ci nañ ànd ànd nawle mais mën naa am dafa juum wala waxin bi moom moo juum ñett yoon amul ci nit ngay juum ñett yoon di génn sorti te amaana li ma mel yàlla moo ba doyal soo ko bàyyi man damay xew bu jeexee ñoom dañuy fay te man damay gën a tàkk loolu yàlla moo ko def ci man fi nekkoon ñëpp yàlla diñu na leen ñaay dof a usey te lu ñuy def dafa naturel <laughs> li ñuy def dafa am barke li ñuy def dafa am barke xanaa xaw mën ngay waay di def lépp da doo am barke kan mooy lili Lili mooy sama yaay ju baax ju nekk Paris mm-hmm. gu ma taxawaay taxawaay yaay mm-hmm. gu ma dimbalee dimbalaayu yaay jàppale ma ci sama vie jàppale ma sama àddina su ma demee Paris du ma jël du jël néeg hôtel laa jël te lépp moo koy fay xaalisam muy Lili création bu baax nekk Barbès ku am yërmande ku ma fonk ku xam maay kan yal na ko suñu borom dimbali te ni Sénégalais ñu ñaanal ma mag sama famille ñu am jàmm na ma Sénégalais yi mag sama famille parce que nit amulul famille man li ma nar sama famille yëpp yaa na ma ko suñu borom may ñaari rêve la am ci àdduna yóbbu sama ma màkk bintu jeng sama papa ji génn sama papa la te nangu naa sama papa la mhm. yàlla dimbale ma jëndal ko kër ma dugg ci ak jàmm ak salaam parce ma am ma am loolu su ma deen tàlli ma xam ni kii mooy sama papa mu nangu ni mooy sama papa loolu dama cee fierté lu ma lu lu ma def moom ci ba ma nekkee xale ci ba ba moment bi dinaa ko def ci moom. di nga dabu dinaa dabu. parce que nit ku lu day tarbiyu waa ay waajuram te damay tarbiyu sama waajur bu dee ay dambaay tarbiyu naa ko ba am li ma bëgg ci moom te des na moom yeneen tarbiyu yaay ju am yaay ju am yaay ju am ci doom yaay ju fonk doom yaay ju xam luy doom bëggul sama dërëm barke alxuraanu karim bëggul sama dara bëggul sama ñaar ban ñu bàyyee ban ma abandonné moom rek moom ma téye xëcc ma nekk sama yaay nekk sama papa ak sama maam may dund lu metti di dund loo xam ne mënu ma ko wax télé di dund di souffrir loo xam ne man maa ko souffrir des fois ma jege ci jàdd jooy parce que musuma bokk sama papa lekk ci àddina sama yaay musuma toog sama papa ak sama yaay bokk ndab lekk te loolu sama rêve la musuma ko am ci àddina des fois nit di reetaan te des fois may ci télé bi rek am naa loo métti au loo xam ne sama bii la maa ko dund sama tey sama papa bu génnoon weer loolu dama koy deewaale nit du xam ci àddina xaawi na sama sutura tey ku ma bëggoon a yab damay yab ci yii mais yëpp doo am parce que man fexe naa ba marqué sama empreinte yi Sénégal waxuma ne man fii saa papa laa waxuma ni fii saa maman laa damaa judd ci ñàkk yaroo ci ñàkk maa ngi ñàkk lu ma am jàpp bu jàpp ne am lu ma koy tontaanu pour dimbali samay waajur tey kenn xamul woon sama sutura kenn xamul woon euh, sama vie musuma wax ba prononcé sama papa musu sam ci àddina xaawi na sama sutura mais sama papa la weer na mais sama papa la yàpp na ma ci àddina mais sama papa damay nangu li tax may nangu mooy lan moom génn ni sama papa la loolu rek moom a kontaan loo ci àddina loolu ko doon xaar loolu laa mais du alal du am am su ma amoon tey barke Seyduna Muhammad billaay wallaahi la ak ma suul sama ndey kon tey fii mun fu mu mënti nekk dama koy xëcc récupéré ko sama wet mais néeg laa jël amul sax salle de naa di tëdd ci néeg bu am kilim jomm naa di tëdd kër gu am lépp sama yaay di ba tey benn rêve laa ci àddina muy dimbali sama yaay mu tabax këram gi mu ma mu ma décidé jëndal ko ko ma jëndal ko ko tabax ko mu rekk soo ko jël appartement loolooy sama mébét ci àddina mais pas yii xam nit ñi daan maa bëgg tey ku ma fekk sama néeg fekkee kenn amul ki du ma du ma rus ku ma fekk sama néeg nga ma fekkee te man dépassé maa war a jël appartement moom la ko mais jom mën naa di tëdd ci appartement bu lépp sama yaay tey jom naa loolu te réew boobu mooy sama décidé loolu laa décidé sama yaay boo amee kër bu baax su ma neexee jël 60 appartement parce que man foofu laa toll ci ñàkk laa doo yaroo ci ñàkk na ma sénégalais yi ñaanal rek yàlla dafa ma sutura. yàlla maam jaaram dañ ko jël dem ànd ak moom dem seet sa papa. ju non kooku jigéen ju brave la jigéen ju baax la. Mhm. jigéen ju am sutura la. parce que boo xoolee ci vidéo yi day mel ni ku timide dafa mel ni ku ku ñemewul caméra. ni mu mel noonu la mel. Mhm. yaa am da dégg kii xanaa kontaanul. kontaan wóor na Seydou naa kontaan kontaan ñetteel amul fenn ñetteel lañ génn. xanaa kontaan mënut a weesu loolu. ñetti at ñetti at mës a dugg soirée xamul luy soirée barki dem lañ mës a dem barki alxuraanu karim billaahi wallaahi restaurant man ak moom. barki dem lañ mës a dem restaurant man ak moom te dafa tëdd rek barki dem dafa tëdd ci restaurant bi di nelaw ne ko jóguñu ñibbi barki salaatul fatiha te xam ne jigéen ju baax la. ñu ànd ñetti at lañ génn nit xamul sama lépp sutura amaa amaana sénégalais ñoo ma jàppee dof man gëm naa ne ñoom ñooy dof parce que du ma takk xale bu élan njool. <laughs> deux élan deux mètres quarante mètres. waa waa ñu waxtaan deux wala un heure cinquante waaw moo tax bis yu na ma yàlla defal sutura. jàmm rek nga yem Sénégalais yi seen xol xam naa mi ngi ci man na gën a yokk bu leen tax leen feewul leen parce que man ku ma ku ma ku ma seetalul doo ma xam su ma la nettalul doo ma xam amoon na ñoo xam ne ñi ngi doon ma saaga naan kii baaxul or ka ni man maa baax nit ñoo comprendre rek mais nag la kenn mënut a teg ak moom mbagg kenn mënut a wax ci ñaam papa génn nga tele wax ci man man damay génnaat télé baalu la. loolu damay toogaat ci télé. jàkkaarloo damay toogaat ci télé en direct di la baalu parce que papa nga waxuma ay barke man papa laay wax waaw man papa wax parce que ba tey suñu borom mi muy sudaal maa ngi am barke kon waxi barke waxuma ko damay wax en tant que papa xam nga nee nañ barke barke bàyyi man du ma wax waxi barke kon day nduru intérêt laay jaaw jaaw ci moom jaawuma ci moom dama na ko seet par yàlla war na ko papa sa doom a ngi nii ñëwaat na ci yow maa ngi lay jéggalu ak lu ma la mënta def te ak lu ma la mënta def ci àdduna maa lay jéggalu lii sama reef la sama ndam la man dem ba gisaat la sama ndam la man dem ba nga nangu ni sama papa nga sama ndam la maa lay jéggalu ci àddina maa lay baalu ci àddina suba bu am naa lenn te nanu ma koo bokk yàlla boo ko yàlla may papa maa lay baalu ci maa lay baalu maa lay jéggalu man maa lay baalu man sa doom maa ngi lay baalu bu baax a baax maa ngi lay baalu bu wér-wér man nii sa doom maa lay jéggalu di la gën a baalu waaw baal ma àq ak lu ma la mënti def ci àdduna baal jéggal ma nga baal ma ni nga bëgg ma sant ko lay sant ab lay fay moom lay sant ba day tukki maa ngi lay jéggalu papa maa ngi lay jéggalu maa ngi lay baalu waaw maa ngi lay baalu bu wér a wér ëpp naa def nag saay sama respecté wala mu yàq Sénégalais yi moom xam ne pare nañ ci affaire bi parce lii mu wax ni bisu wax moom mënu ko weesu ñi doon polémique ak ñi doon génn di discours di wax seen seen avis war nañu war nañu arrêté fi mu nii moom wax dootul am parce que ñëpp jàmm lañ ci doon ñaan te lii mu wax moom ça y est. ñu bàyyi la nga wax sa sa tàggatu waaye bi jeex na nag yàq nga émission bi jeex na nag ah tàggatoo waale rek ah dis ah waaw ah waaw doy na waar rek waaye nag moom Abdou Aziz ñu ngi lay jaajëfal waaw sant yàlla rek am mbégte bu baax ci tey sama rakk ji ñu dalal muy Baba Mbengue bisu nga def lu rëy mhm. daf la ko wax sànq mën nga nekk ci benn nit li ñu naan benn lam du yëngu du waxam mi ngi dugg fu ne mi ngi jéem lu ne pour bëgg baaba ñëpp xam ko mhm. mais dañu jotul woon ci loxo yu mel ni yow wala big taf ngi dégg big taf dañu jotul jotul woon ci loxo yi mhm. mi ngi góorgóorlu nekk di way di jéem lu ne mais benn lam rek moo doon yëngu muy Abdou Wahab Fall mooy dugal studio mooy def lépp bi ma koy booleek moom boobu baaba xale bu ndaw la bi may bi may sentir baaba dem di ko jëli naan ko waxab jàppale ko boobu ñu bari ñi gis baaba mais demuñu tey jii xale xale la boo xam ne ku am patience la buy ñàkk kenn du ko xam buy am kenn du ko xam Abdou Wahab Fall jàpp ci mais tey jii amuñu woon loxo ku mel ni biisu mhm. tey jii way wi mu la way dëgg la lu mu mëbatoon ci xolam la mais waxaab moo ne ko doo def way wu rëy te njukkaloo biisu moom Abdou Waxab Fall ci boppam moo ne ko wayal tukulóor kulóoy njéeme parce que def na ci réew mi loo xam ne nit ñaa ngi way nit ñi mais moom rek la ñu war a way moom baaba mu am fit daan ne ko lan la mu ne ko am na jom nangu na liggéey bëgg na lu baax ba pare mi ngi jàppale nit ñi te waxuñu kon tey jii danu lay gërëm di la wax ne baabaa ngi nii ah. voix bi nice am na ay texte mi ngi way orchestre bi baax na mais bu amee ñu mel ni yow dinañ ko yóbbu foo xam ne new foo incha allah parce que mës na ànd nag ki nga xam ne mooy Mbaye Gueye Faye dem France am na ay tournée internationale yu mu def mais ba léegi dafa am ay loxo yoo xam ne boo ci jotul mënoo dem ñu bëgg ñu ngeen jàppale ko ndax ginnaaw raay Pikine ñëpp ñi ngi ci ginnaawam mhm. mi ngi jéem dara mais dafa am loxo yoo xam ne boo ci eggul mënoo dem tey ku mel ni Youssou Ndiaye Modou Café kii ngay gis nii ma dend ak moom surtout ba de loola mhm. tey bàyyi léppam ñëw xam nga tëj place am ndax baabam depuis cinq heures mi ngi fii Khadija Samake moom mooy jaay diw yu baax yi mooy suñu jigéen di suñu xarit muy xale bu baax kee kee ci ginnaaw ku ne xam ne ko muy laay lawbe ànd ak soxnaam maalaw biri maag maalaw làbb maalaw may sa pend joor nga xam ne bi ñu jalee laal ba léegi dañuy law sunu xarit beneen nekk ci ginnaaw lépp luy verre yu rafet montre yu rafet mu koy jaay boroom nuuru laa nag ñoo bokk dëkk Jamil sunu frère moo tax nga aaki moo ko waaw non dama ko aaki moo xamul ma aaki lu moo dama xam fi mu la ba pare boo laalee di tax bi defe ne moo ci man boo laalee soow mi defe ne moo ci man loolu laal defe ne moo ci man ba pare société bi ay jeunes ñoo ci liggéey ay jeunes jeunes yi ci liggéey yëpp Pikine lañ dëkk kon ñun dañ koo amul njukkal Abdou xam nga maag Jamil depuis kañ la ah Jamil waaw maay premier njëkkeem ah loolu de xawma ko man samay frère ñoom dañ maa bëgg baax na ñooy dend ay kër HLM depuis bi ñu nekkee xale ba tey dañuy toll ñoom mos a bokk classe. mos mhm. a ba te tey wala. moo ma xamal wéef de moo continuer ba tey jii ñuy mayante ay cër loolu. moo ma xamal wéef de wéef bu ma ko ràññee moom la waaye dama bëgg rek nga xam ne Abdou Wahab Fall ku la fonk la ku la bëgg la. ku lay yëg la ku lay sentir la nit ku baax nee naa ko man xamul xaw ma ministre de la culture. télé laay waxee yow yaay suñu ministre de chaque fois mu woo ma di ma kenn di ko tàggal mooy suñu ministre de la culture naa leen nag bu dee waxaab kese la waaw wallaay wallaay di man nag bu ma jaaxlee parce que waxaab insisté wul ci kenn su ma jaaxlee bu waxaab dimbaluwul kenn rek li muy def daal da ciy ne rek ku ko ci fekk baax na te showbiz nag xam nga dafa dëkkee neen waaw mi ngi noonu waaw ngay làmbale sa bopp waaw moo tax ñu làmb la te bu ñu la làmbee daj nañ la macha allah ku la njéeme ni nga jongomaa noonu nga baaxee ni nga amee jom noonu ngum nangoo liggéey bi ma ñëwee 2S yokk waaye wàññiwoo leen ma. yoon uh-huh. yónni ma may gërëm Pikine gépp mais dafa am koo xam ne dafa may jàppale pikin ma bëgg rek wax ko ñaari baat muy Thierno Ndom Ba. waaw borom Pikine ci laa bokk. Uh-huh. tey jii koroog ni mu gungee jigéenam gis nga ko muy Marème fay Sall muy gungin bu rafet Thierno Ndom Ba Pikine gépp dañ ko war a ñaanal ci social bi ñun moom la ñuy déglu président bàyyi na mais moom fu mu ñu jëmale ñu jëm fa ñun moom la ñuy déglu ndax mooy sunu Macky mooy sunu Karim Wade mooy sunu lépp. muy Thierno Ndomba bokkum ndoyum Ousseyn Ndomb ak xam yàlla na jàmm yàgg léegi nag na ngeen ñu fekk léegi nag gaynde ndax dañuy continuer sargal tukulóor ku la njéeme yow ba léegi dañ lay waayat fee gaynde duñ la bàyyi benn yoon ndax fi ñu yóbbu moo sori bi nu la wayee rek single bi daa wër àdduna ci ay minute big taf ku gërëmul doo gor àdduna toll na foo xam ni boo dee wax lu baax kii wax lu bon mi ngi taxaw ci wet rek bëgg lu la fànq waaye demal bu la dara naqari te xamal lu doy waar nee naa la man sama CV waaw dañ ci war a bokk da ci dañ cee war a bind vivre au Sénégal et réussir au Sénégal eh waay sax waaw waaw waaw euh, defal ma loo xam ne nag mënumaa toog fii ñàkk koo bañ a wax yëkkati xaru tabaski jox ma ko moom ku baax waaye damay gërëm ëmmaloo taalibe maam Cheikh Ibrahima Fall parce que dañoo bokk kër gi mu bëgg ma te nit ku ma bëgg porte parole Wally Seck de ku ma bëgg man dama lay bëgg. dëgg la barki dee su ma mag Pape Diouf dafa am wax ju am solo. mu wax ma Aziz nit ku baax lay tooj. mun ma Abdou Aziz ma ne naa mun ma yow dip euh, nga. yaa ngi dégg big taf. Mm. ma ne ko lu tax mun ma Aziz waxal ñëpp lu baax. ku koo ko neex koo ko baax. waaw ne ma Pape Diouf bi ne ma waxal ñëpp lu baax Aziz. Ah, mm, neexu neexu Pape Turc laa xam. defe naa euh, da ngeen koy yéen ñi nga xamante ne wax dëgg yàlla booba ak waaw ngeen xam ko man xaw ma lu tax ngeen tardé. ah baax kat la de découvrir dañoo tardé découvrir Pape ku ku neex ngi noonu. mag du dàq nit ku baax la ku yéwén waaw bu àjjuma ñu ko. barki Seydina Mohamed bu àjjuma fi lay ne. waaw àjjuma. Youssou mii maa ngi koy gërëm. ñu ngi defar plateau bu rëy bu mag. bu defarati. defarati bu mag ndax bu nu defaree rek defarkat di bàyyi defar. waaw xam nga nag Papa El Hadj Ndiaye. waaw dañuy xaar defarkat di defarati. maanaam ñun suñu création moom bokkul ak benn création. li ma Youssou Ndiaye dugg ci biir na ma fii lan la ma ne ko dugal ci bato bi rek te dem te noppi jërëjëf. dugg ci bato bi te dem te noppi. eh couleur couleur njéeme ku sa reeru doy doo tala xaaraan yi bën di la ba max ku wékki njowaan da ngaa fas yéene féexlu ba faja sëriñ Saliou borom njàpp da la njurul mi nga yaakaar ku la ba daanu yow newal ci njowaan gi rek naan bii ba bii ta bang dégg loolu Abdou Aziz nga big taf bon nii <laughs> jërëjëf Abdou Aziz ngi noonu kooku du nit sax kooku yàlla na ko yàlla defal jàmm nit ku baax la chéri bébé mooy wax ni ca euh, euh, ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax Abdou Aziz di jaajëfal ki nga xamante ne aussi moom mooy Laay ah euh, Laay joyeux anniversaire à toi mon frère le grand réalisateur Laye Ndiaye ah borom 2STV moom tamit ah c'est son anniversaire aujourd'hui waaw ñu koy wax joyeux anniversaire xam nga nag tim bu mag bi tim bu mag bi ngoon bi la waaw waaw waaw ah, bu baax bi ngoon bi la waaw <laughs> ah, ñoom laay mais moom ñëw na nee na moom ngay siril ko ci dabaay dugg na dabaay dugg nga dugg na waaw ayca Euh, euh, euh, yow suñu paree léegi dama lay jox numéro de Baye Khadija nga daal fay def sa stand. daal di exposé yow ci fan ko mu bañ. mu ñëw dinañ ñëw seet si la amul benn problème ndax ñoo koy installé. xam nga yu baax yi BD 360 moo koy installé. Oh. donc ñun ñooy installé vente privée ba nañ la teg fu baax nga jaay jaay mu baax. waaw te xam ne yow dinañ am. rak rakkam xaritam. dinañ tàggu maman te xam naa ne maman dina ko bàyyi. mën nga ko bàyyi mu ñëw bële paase. Karajo danga ma cee fekk déggu li ma wax xanaa. <laughs> ma ne le grand réalisateur Ablaye Ndiaye Laye Ndiaye borom 2STV joyeux anniversaire à toi enjoy your day wish all the best ah ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax a baax a baax euh, euh, euh, je sais pas mais Cheikh jaajëf jaajëf <laughs> ñu lay jaajëfal. di jaajëfal ñi nga xamante ne ñoo toogoon di ñu setaan eh, ci émission bi Mouhamadou Moustapha ma bàyyi la nga tàggatoo balaa waaw merci beaucoup man damay nuyu bu baax a baax Momar Business Attitude c'est un frère mu yor benn plateforme mu tudd seen influenceur muy première plateforme dédiée aux influenceurs et créateurs de contenu ah, trouver les influenceurs et créateurs de contenu en un clic faites vos pubs à travers cette plateforme révolutionnaire mooy Momar Business Attitude plateforme boobu mën ngeen dem influenceur boo leen bëgg rek mën merci beaucoup ñi nga xam ne itam ñi ngi doon suivre bu baax a baax a baax le mara de la jeunesse Serigne Fallou l'homme social maa ngi koy bégge bu baax a baax Mohamed c'est un ami depuis euh, depuis depuis Côte d'Ivoire mon ami Mohamed je te salue du fond du cœur tu un frère Rokhaya Sarr depuis Pikine euh, Fifi Diaspora maa ngi nuyu El n Ndiaye euh, Sistafa Vito maa ngi koy bu baax a baax ah. Cheikh Toch un bëgg naa bu baax a baax a baax jaa ngeen jëf ba samedi incha allah ak Pape Diouf ñu continuer anniversaire bi nice nice nice nice ayca Omar Cheveux The King euh, ñu ngi lay euh, nuyu bu baax a baax a baax moom it dafay topp émission confrontation à chaque fois mi ngi toog di seetaan Demba Gisee Pendo Gisee ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax Cheikh Ba bëggoon na dugg ah Cheikh bëggoon nga dugg waaye euh, depuis Los Angeles mais nag dommage temps bi moo ñu xoj te karaajo moom xam naa ne daf may dóor Leuz borom Pikine ñoom tamit ñu ngi leen jaajëfal yaa Seydis seen ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax Modou le grand électricien ñu ngi lay jaajëfal di jaajëfal Grib di jaajëfal euh, Papa Ndéri ah euh, sama Papa Ndéri ñu ngi lay jaajëfal Ibou Fall waaw yow yow yow sax yow laa gën a bëgg Kaalim Seck yéen bu leen xëccoo bu leen xeex yen ñëpp fii laa leen def Absalaam euh, ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax ñoom it waa Pikine ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal Mari Ndiaye ah Mari Daw ñun ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di jaajëfal Jatu ah jërëjëf Atumaan am satu borom Paris am satu jombana Euh, euh, vos Cheikh ñu ngi lay jaajëfal di jaajëfal Pape Bey ah béy naa ci couture bu yànj bi nga xamante ne sama robe yi ngeen di gis ma koy sol yëpp si Pape Bey ah euh, jërëjëf Pape Bey waaye jërëjëf à Adja make-up ah ak fulaar make-up bi ak fulaar bi yëpp Adja la ah wax dëgg yàlla ñu koy jaajëfal waaye bu ngeen gisee bijoux yànj yi nga xamante ne it moom laa sol da ngeen di seen xel rek du def lu dul dem ci ki nga xamante ne aussi moom mooy bijouterie Daaru Salaam 2 ah ngeen am un large choix euh, euh, des pour pour vos bijoux euh, de qualité ah lépp loo soxla rek si bijoux yu raar te raffiné 18 carats 21 carats ba 24 carats da ngeen ko fay am ah chez Serigne Touré marché Tilène rue 19 angle Blaise Diagne disponible sur tous les réseaux sociaux seen contact di 192 90 90 77 605 26 26 ak 77 dem leen euh, paris yu yanj yoo xamante ne dañ leen ko waajal ci màggal gi dañuy jaajëfal aussi Queen Yaxa ci dàll yu yanj yi nga xamante ne fële ca route des Almadies ñu koy jaajëfal bu baax a baax a baax moom Queen Yaxa euh, mais ani papi mi plonge xanaa daf fi nekkul ah papi mi plonge nekk fi waaw ok d'accord ay serrelage rek la ñu mën fi deseer amu benn problème yii yëpp bu subaa dinañ ko waxtaanee ah MP kon ñëwal ma ne MP ñëwal kon MP xamoo ma nee naa la télé bi télé la rek am problème ma li mu bëgg wax dama koy wax télé tàkk ak fay kaay MP plonge sama dàll yi laay wax laa wax kiun moom ko jaay kay jël ko ok d'accord merci ah Abdou Aziz yaa ngi def lii sa plateau munoo ko nag boo ko defee dañ lay boole ak man de <laughs> koy jël dàll yi jëlal dàll yi MP <laughs> karaajo seere si dàll yi koy mu ngi nii maa jongo ma nag rafet ay tànk rafet lépp lii buñ ko waxtaanee dañ ko waxtaanaat sax lii la mën nga jël commencé di yéeg ci borode bi jërëjëf détails yi jërëjëf ok solu maquillage sol yére olof dafa metti surtout pata am matériel c'est très important détaillé ma wax benn par benn lan ak lan la li ko fi indi jërëjëf visible c'est la clé du succès euh, ñu leen di jaajëfal ci panneau publicitaire yi nga xamante ne a ngi koy gis les vingt ans de la 2STV c'est avec visible c'est la clé du Euh, euh, astu ñu ngi lay jaajëfal di as euh, di jaajëfal buddi ah ab Abdoulaye Dieng yéen ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax asuwañ jërëjëf ah ci fóot mi nee naa leen dañ koy jël si yóbbu ko indi ko fóot fóot mi delloo si la ko huile soda dëwlin bi nga xamante ne moom la ñu taamu ñun ñëpp ah dëwlin bi baax ci wér gu yaram huile am na huile de palme am na huile soja dëwlin soda mi ngi noonu am na bu ndaw à 350 am na à 1500 am na 6500 euh, francs waaye am na euh, bu mag bi euh, à 19000 bu ngeen dem rek da ngeen ko fay fekk vinaigre la en même temps gamme la lii mooy gamme soda dawlin bi vinaigre bi ah dem leen ngeen wuti ko wax dëgg yàlla ci ay prix yu mucc mucc ayib ci marché bi moom mooy dawlin bi nga xamante ne moom moo ci gën wax naa leen ko du ma ci tàyyi jus bi nga xamante ne moom mooy suñu jus muy nuuru la jus à garder de préférence au frais et à l'abri de la lumière ça c'est EDK bu ngeen dem da ngeen ko fay daal di fekk loolu parfum moringa la ko naan ko yaa ngi dégg dañ koy daal di xëccoo ba benn bouteille rek moo fi rek ma wax ko Chat de luxe ayca en face casino euh, euh, supermarché bu Almadi bu ngeen demee da ngeen ko fi fekk chez Mansour Motors main cave yooyu yëpp euh, c'est l'ensemble de Mansour Motors ah, ñu koy jaajëfal bu baax a baax a baax moom Mansour Ndaw ah jërëjëf champ de luxe parfum de classe yi bu ngeen ko bëggee rek da ngeen di dem fële ca champ de luxe ngeen am ko fa di leen jaajëfal bu baax a baax baax euh, euh, gan gi ma ko war a jox sax xam naa ni euh, jooy na ba dem bokk na ci aussi lan encore fàttewu ma dara FBD prestation jërëjëf waa FBD prestation ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax a baax ah Fat Bintou Euh, ñu koy jaajëfal ña nga nekk fële ca école Madiaye Sall derrière école Madiaye Sall di leen jaajëfal reer bi xam naa ne suñu non suñu reeru tey bi xam naa suba lay ñëw ci prépa euh, ci ci plateau spécial lutte bi ak Père Bekaay ah, euh, ñun ñoo sacrifié wu Age jox la yow boo soxlaa ñëpp dañuy ñàkk mhm. jërëjëf Age Bekaay ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax di jaajëfal waa Vivita ah cosmake up ci digg bi la cosmake up nekk bu yembee rek ma ñëw ci cosmake up xamu leen ma sax yéen du da ngeen di jaay désert Tidiane dangeen son sonn na ku nekk li nga mën rek def ko cosmétique bi laa wax ci ngeen ñëw laa wax <laughs> dara du fay ayca Vivita un relooking pour votre personnalité by Cosmakeup ma nga noonu avenue Georges du la euh, immeuble Soxna Anta Dakar ñu leen di jaajëfal bu baax a baax a baax maquillage bi nga xamante ne moom la ñuy maquillagé ah sama sama jaar gi MP mi ngi dee waaye te nga xam ne mag yéen yéen a yem ay buuju maan la ñu jox ñu heure boo xamante ne heure bu sori la heure bu guddi ñuy wax ak kii sénégalais yi <laughs> jërëjëf maquillage boo xam ne c'est sans transfert et nii parabène euh, euh, maquillage bu baax la boo xamante ne boo ñibbee rek dem ak yow day yomb du diis ci sa kanam ah euh, démarcation bi ngeen di wax dootu leen ko gis ah Adja borom make bu baax bi wax dëgg yàlla moom la utiliser defaral ma maquillage boo xamante ne du ñu am différence entre xam naa léeg nga jëkk ñu naan la HD bi xeesaluma ma la bu tayee motso du lucide day volé bu teyee mu éclairé ma mu leer naññ du ma wax du ma werante ak moom yaa ngi dégg bu suwaa mu def ma ma xees wecc bu suwaa mu ñuul kukk du ci man man bougé ma aw ma temps diw rastaman laa rasta rastaman xam nga loolu sol basket rek dem liggéey loolu laa xam gën leen ci yi ngeen nekk nii ñu ngi leen di jaajëfal bu baax baax skin biologie laay utiliser ma nga noonu pharmacie bu ngeen dem da ngeen ko fay daal di fekk Ah, ah, ah moom ci prix yu mucc ayib am na gamme yëpp am na lotion bi am na savon bi am na lait de corps bi am na euh, lépp loo xamante ne gamme la pour réparer pour nga réparer sa peau ah yow miy diw ah ci ci ci Khadija Soxo sama Samake boo jëndee ci moom diw terewu nga utiliser diw bi nga xamante ne moom mooy skin biologie ki xees pecc mën na ko utiliser waaye ki ñuul kukk mën na ko utiliser baax na pour góor baax na pour jigéen parce que ci produit pharmaceutique yi la soxlatul ngeen di jënd ay ay clarins ay yëfu tubaab yooyu déedéet kii doomu réew mi la dem États-Unis jàng ba am bachelor am ñëw indi produit yoo xamante ne pour yow boo demee ci sama Samake mu jaay la diw bii ngay utiliser pour sa sa sa pour nga xamante ne doo am ay produit crème solaire yooyu la waaw hydraté sa jërëjëf jaaykatu diw bi nee na hydraté c'est très important pour hydrater sa peau ma nga noonu jërëjëf chers téléspectateurs ñu leen di wax ni jaajëf di kontaan bu baax a baax a baax ci yéen di gërëm encore sama rakk ji wax naa ko Adja Makeup ah euh, ci fulaar bi ak maquillage bu yanj bi nga xamante ne defal nañu ko Serigne Touré ci bijoux yu yanj yi waaye Pape Bey ci couture bi brodé bi ah ETS euh, Fallou Koll établissement Fallou Koll la fële marché HLM di koy jaajëfal bu baax a baax a baax a baax ah euh, waa Wave nee naa la payer avec Wave c'est payer sans stress anniversaire bi yëpp Wave mu ngi ñuy accompagner ndax nee naa leen Wave moom mooy calpe bi nga xamante ne moom moo baax ci mim réew actuellement ak fi réew mi toll jël leen seen xaalis def ko par wave ah euh, lu ngeen ci bëgg faj rek faj fay ko faj ko ci ah mën ngeen ci def seen ay shopping mën ngeen ci envoyé teranga yi nga xamante ne maa ngi ko bëgg teranga teral teral Aziz ci wave laa koy jaarale jërëjëf di leen jaajëfal bu baax a baax a baax jaareetu ah, ah, ak euh, ñoom Ousseynou ñoom ñëpp di leen jaajëfal waaye ak Aquatera ndox bi nga xamante ne naa leen moom la ñu taamu ndox bi nga xamante ne moom mooy suñu ndox ak Aquatera euh, xam naa ne bii di ñëw di ngeen gis yeneen yi dinaa ko gàddu mën a waxaat ah ndax bii nekk nii ci suuf jeex na aquatera la waaw waaw waaw aquatera la loolu la yàlla dogal waaw buum bu buum delloo na ci mbay mbéy te xam nga Omaro bu nee prive rek ñëpp da rang bi day daal di jub ñëpp topp ci jërëjëf nga yàlla na yàlla defal jàmm ah, ah, ah defal ko ñëpp ñi nga xamante ne ñoo toogoon di ñu seetaan ci émission confrontation restez scotchés sur les programmes de la 2STV d'ici là portez-vous bien merci beaucoup quant à moi je vous donne rendez-vous inchallah vendredi avec Pape Diouf et ak Génération Consciente